membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gëna mëna mën jëm ci kanam ngir mu gën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën ci kanam. néegu borom bi subhanahu te jubluwaay mooy am lu ñu révisé wala euh, ñuy waxtaane impact réseaux sociaux yi ci biir si ci Euh, impact bi nga xam ne ko ciy rawatina ci côté bi nga xam ne côté négatif dañuy wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni laa taqumu saatu xataa yuqbadal ilm saa balaa muy taxaw bés penc xam-xam dañ koy récupéré daal di récupéré xam-xam mu ne nekkul ne xam-xam li diw ci bopp yi ngeen fàtte yi ngeen xamoon waaye borom xam-xam yi lay récupéré benn par benn bu mag yi dem mu ne wa taksuru zalazil tremblement de terre yi dafay bëri amul semaine booy xëy doo dégg tremblement de terre ci Asie ci Moyen-Orient ci Proche-Orient wa yataqaarabu zaman jamono ji dafay gën a jege jamono ji day gën a jege loolu yaakaar naa ñëpp mën nañu ko confirmer wala léegi semaine day mel ni ñaari fan weer day mel ni semaine euh, korite jàll na tabaski jàll école tëj na léegi de dégg école yi tëj école tëjee léegi nga dégg ñu ne ñu ne la koor nangami weer bi des nga ne ah loolu am na temps jékki-jékki ñu ne koor bi agsi nga ne koor bi dugg jékki-jékki ñu ne nga jékki-jékki ñu tabaski gi ñëw addi di jàll sa kaw di gaaw ngay màcc njaboot gi di màcc yëgoon na njaboot daal di màcc yëgoon na yaa ngi màcc fa ñu di gaaw a ba jékki-jékki yëg ñu magal di taqaarabu zaman jamono ji day dem ci vitesse te wallaahi moom la ñu am xoolal vitesse jamono ji demee nit ñi bàyyi wu ko xel kañ nga yeewu woon tey kañ nga yeewu woon kañ nga ndékki kañ nga ndékki woon day mel ni une heure de temps añ nga yaa ngi toog léegi reer ñëw léegi nga yeewu suba bu la fi yàlla bàyyi léegi dugg leen di ba ah tàkkusaan leen di woon tisbaar tàkkusaan leen di fekkaat def heure bii nga naan jëm dimanche dimanche jeex na bu yàgg te bàyyiwul xel yaa ngi ci balaa moytuwul yàgg nga dugaat mardi bi vitesse bu doy waar lay demee nit ñi bàyyiwuñ ci xel na dama aadama yi bàyyiwuñ ci xel ndax aadama jamono dafa gën a gaaw nee na wa tazharul fitan yonent bi alayhi salaam nee na fitna day bëri da ngay nit koo xam ne day dawal oto fitna yee koy jàpp ba day romb fa mu war a jàddee gis nit koo xam ne day tiim li muy lekk xamul lu mu saf gis kuy julli war a julli ñeenti rakkaat julli juróom-ñetti rakkaat te yëgul na juróom-ñetti la julli fit naa ko jàpp gis kuy dox di wax di waxtu di sànni ay loxo te yëgul na mi ngi waxtu fit naa ko jàpp gis kuy traversé télé bi di jàll oto di ko corne yéegu ko bi mu koy yëg sànni na loxo oto bi naan ko dangaa ngaa dox fekk yëgul ne moom danger bi nga xam ne moo ko doon gët yëgu ko sax fit ko jàpp wa taksurul fitan fitna yi day bëri foo ko natt romb na fa fitna biir kër bitti fitnay dëkkandoo fitnay jàkk fitnay daara fitnay école fitnay marché fitna fitna fitna foo dem fitna fitnay bidaa fitnay bokkaane fitnay mooy yàlla fitnay weddi yàlla fitnay weddi yonent bi fitnay yëpp yàlla yëpp yonent bi yëpp lislaam yëpp sharia fitna ci saa boo déggee gis ku ku ku yëpp yàlla taxaw di wax yàlla loo xam ne waxu ñi mu ko wax kilifa ci dëkk bi taxaw di wax yonent bi loo xam ne ñi mu ko wax kilifa ci dëkk bi saa boo géewoo gis fitna yi weddi yàlla weddi nit koo xam day taxaw ne la man yàlla nangam weddi naa yàlla wala man wax wax waxu kéefee génn ci lislaam saa boo xëy dégg ko fitna ba yeewu dégg ku naan la man alxuraan rek laay topp ci fitna yi la bokk weddi sunna yonent bi weddi yonent bi weddi lépp la yonent bi jàngale teg fële ba pare ñu ne déet mu am audace ak fierté taxaw di ko manifester di ko wane ñu ne déet mu ne da koy jéem a ñu ne ñu ne déet mu ne ki jéem a daaw far ci jéem a daaw ñu ne déet am ñu yenn seen dàll ñëw naan la waa ji li mu wax dëgg la loolu ñuy dund kon fitna dafay bëri lool gis doom ji fitnaal baayam saa bu baay ji xëyee ñu ngi koy woo police tribunal doom ji jabar bi fitnaal jëkkëram jëkkër bi fitnaal jabaram dëkkandoo bi fitnaal mbokku dëkkandoom commerçant buy fitnaal mbokku commerçant xarit buy fitnaal xaritam mag buy fitnaal rakkam frère sœur buy fitnaal frère am frère buy fitnaal sœuram nit kuy fitnaal tàntam fitnaal nijaayam fitna ci la ñuy mu taksirul fitan ba saa taxaw yëmu fa wa yaksurul xarj dee dafay bëri bi mu waxee alxarj muy jéegu bëri mu ne wa huwa alqatlu ci beneen riwaaya saxaaba yi ne ko man alxarj ya rasul qaala alqatlu déegu bëri nit day reer léegi ngeen julleendoo gee mu tàggatoo la tàgg day yeewu ñu tàggee la ko sa portable nga naan non gars yi dañoo jum xanaa diw léegi ñoo waxtaan ba ñoo joxante rendez-vous am fu ñu war a ànd ñu la dem na nit tàggula ne maa ngi dem jullee ji néew jullee néew far moom mu ñëw ñu jullee ko nit ñëw tàggu la damay jaale ji jóge Dakar dem Louga jaale ji moom mu di yem fa far ñu jaale ko moom ci bés bi mbokk yi lu day waar la ñu doon te nit ñi nag bàyyi xel ah, ba pour ñoom affaire bi c'est dans l'ordre de normal des choses nii la war a demee ah bàyyiwuñ xel leçon yàlla di joxe attention bi muy su attention bi muy attiré nit ñi bàyyiwuñ ci xel. kon dee dafay bëri bu njëkk soo déggoon nit dee na nit dee na wala dafa am ko accidenté fii wala kuñ jëm fii paaka affaire bi da lay traumatiser da ngay gis ku suur añ gis ku suur reer gis ku suur ndékki gis ku nelawam yàqu léegi nit ki day dee wala ñu mbëkk ko wala ñu jam ko nga tiim ko photo ko selfie wane ko publier ko ci réseaux sociaux yi ñëw kër ga añ naan la wël naan njar naan ju tëdd na la affaire bi du la déranger du la yëngal tranquille da ngay te boo déggoon ku dee bu njëkk tiit yow tiit léegi dérange woo nit da doon jaare ji nit dikk journée bi nga xam ne kii am na lu ko dal mais nit ñi fa ñuy jaaree nit ñi toog ko ci xaw ma ñu te leen lekk ak naan fa la ñuy wax ni añu dëj bi neex na neexut saf na xorom manqué na xorom ñor na ñorut fa lañ koy waxtaanee ci dëj bi ceeb bi neex na waaye ataaya amut ci dëj bi lañ koy waxtaanee ataaya bi am na waaye dafa tànk ci dëj bi lañ koy waxtaanee jus moo ci manqué. ndox miñ ma may man seddut ci dëj bi lañ koy waxtaane ci dëj bi lañ koy waxtaane mbokk yi doy waar dañuy dund doy waar yemu fa mu ne wa xatta yaksura fiikumul yemu fa nee na fa na alal day dem ba bëri ba bëri balaa saa taxaw bu gënee jege alal day bëri nee na fa yafiida ba tuur di wala gàtt ba tuur di wala gàtt nga mën a gis bu dëkk benn quartier li mu yor ci xaalis waxuma moom mais mën naa dundal quartier bi budget Sénégal 1960 ak budget Sénégal 2024 8000 milliards hmm? ci lu nekkoon ay 500000 nekkoon 1 million nekkoon 5 millions million million ba léegi ay milliards 8000 milliards kon sotti na de tëb na fu bëree bëri kon xaalis bëri na wala bëriwul looy dégg ñuy waxtaane ci xaalis ay milliards rek ngay dégg saa boo déggee ci rajo yi. 34 milliards 200 milliards 400 milliards 600 eh, milliards 3000 milliards 4000 milliards vingt nangam ay milliards rek ngeen jël waaw xaalis bëri na xëy na daa demee boor daa demee boor mais bëri na saa boo xëyee banque yaa ngi yokk ci dëkk bi banque yi banque yaa ngi yokk assurance yaa ngi yokk microfinance yi ñu ngi yokk dëkk bi oto yaa ngi yokk wala yokk wuñ te danañ daa métti de tabax yi ñu ngi yokk immeuble ñu ngi yokk building yaa ngi yokk àll bi suuf amatul tere amatul daa yi ngi dagg ci tabax rek wala déet Dakar léegi mu takkaloo Kees ji des de lan lay tekki <laughs> mooy affaire maa ngi avancé xaalis am na xanaa da ngaa xaalis daa am nu mu féete ak boor bu ma dem mais xaalis am na kon loolu ci te kanam la jëm nag mbokk yi li ñu ci yitteel nit mën naa waa ñun ñuy wax ci wax affaire réseaux sociaux oustaz hadis bu mu indi lan mooy relation relation mooy wa yataqaarabu zaman mooy jamono ji dafay jege gaaw yonent bi miracle la de waxam miracle la nee na jamono ji dafay day jege day jege te day gaaw mais réseaux sociaux yi internet gaawal na jamono wala gaawul ko information bu am léegi léegi Amérique da nga koy jot doo ko jot jamono ji jege na wala jegewul da ngay nekk fii di wax ak ku nekk Amérique di wax ak ku nekk Sydney Melbourne wax ak ku nekk Paris Madrid Las Palmas ah ku nekk Rio de Janeiro wala Mexico nga koy gis mu lay gis ngay dégg muy dégg en temps réel sans décalage loolu jamono ju jegee jegeel wala jegewul bu njëkk boo bëggoon a dégg ku nekk Amérique nooy def bind lettre lettre bi diire deux mois ci àll bi àgg nga télégramme ko mu àgg mu tontu la lettre bi diiree waat deux mois léeg-léeg avant lettre bi ñëw ñu tàggale yow nga fàq wala déet du noonu la woon ñu dema dema dem ba jamono téléphone fixe am waa ji day woote ne woowal leen ma diw xëy na jeunesse yi am ñu ko ñu dem wooyi diw de diw bañ koy wooyee ji dañuy dox romb quartier ba quartier dem wooyi ko parce que ke benn kër fi am fixe ñu woo ko mu ñëw toog di xaar des fois mu xaar trente minutes des fois une que booba ka koy woo fa mu nekk carte lay dugal carte bi mën naa jeex ligne bi mën naa bañ des fois day ñëw woote ne nee ko suba ci heure bi dinaa ko woo suba ci heure boobu mu ñëw toog wala de la demee woon léegi bi gën naa gaaw ñu dem a dem a dem ba waa ji da lay woo fi nga nekk jot la fi nga nekk da nga doon nelaw nelawoo da ngay lekk lekkoo da ngay sangu sanguwoo da ngay jàngale jàngale woo sa bureau nga nekk ci mbedd bi nga nekk ci oto ci marché da lay la wax na li mu lay wax léegi ci une minute mu coupé bu ko neexee mu gis la nga gis ko bu ko neexee mu yónnee la ab vocal am fa mu jaar léegi agsi nga tontu ko vocal léegi fa mu nekk du la gis doo ko gis mais dégg na la déglu ko wa yataqaarabu zaman jamono ji dafay gën a jege yeneen bi junjoon na day gën a jege jege googu mën naa nekk fan yu gaaw mais mën naa nekk ci ay moyen yu gaawal affaire da toog fii léegi télévision nga toog bu seetaan li xew France léegi-léegi nga am ko en temps réel am ko sa portable am léegi-léegi information boo xam ni mi ngi xew France boo moytul yaa koy njëkk a seetaan président France amaana moom réunion ba mu nekk wala fa mu nekk wala voyage bi balaa muy àgg yow jot ko sa téléphone wala sa wala sa tablette wala sa leneen moom jot ko mën ngaa njëkk a jot mën nga kaa njëkk xam li xew réew léegi léegi bu amoon lu xew fii amaana njiiti réew mi wala ministre intérieur wala keneen ka nga xam ne domaine am la ministre transport mën nga kaa njëkk yëg soog bu am fii wala accident mun nga kaa njëkk a yëg balaa mu ko yëg kon jamono ji jegante na jamono ji ni mu gën a jegantee day doy waar lool mooy xale bu jigéen wala xale bu góor guddi mën naa jot mu tàggu papaam tàggu yaayam reer ba war a tëdd ñoo ne yaayam a papaam bonne nii ñu ne ko bonne mu dem dugg néegam ne leen au revoir à demain te au revoirul à demain dugg néegam ñu fekk na leen bonne nuit day tëdd te tëddiwul papa ji dem delloo buntu néegam ak yaayam tëdd moom xale bi ci néegam mu dem Amérique jóge jóge ndakaar jaar kaasa jóge kaasa Casablanca dem New York jóge New York ñëw Madrid jóge fa dem Milan wàcc ñëw Paris ñëwaat kaasa ñëwaat Dakar ci guddi gi ci guddi gi. papam ak yaayam jàpp na mi ngi nelaw fekk wër na fi cinq continents yi ñu ne di li mooy ñi mu doon waxal mën nañ kaa gis mën na leen a gis ci vidéo mën nañu waxante mën nañu envoyé ay photo te ay parents ñoom ñu ngi toog ci kër gi te moom ci biir kër gi dem na fi Amérique dem fi France dem fi Espagne dem fi Italie dem fi Maroc ñëwaat Dakar doy na waar nag du doy waar parents yu bëri bàyyiwuñ ci xel sa doom mi ngi ci kër gi mais am na xarit boo xam ne tey ci guddi la xamanteeg moom ci ni ko gis. ci ci réseaux sociaux yi am ak moom appel nii wax moom nii waxtaan ak ku nekk Amérique xamoo lu mu gëm xamoo jullit la xamoo lu jullit xamoo luy pas-pasam ah, lan la bëgg ci moom xamul ñu ngi waxtaan ñu ngi sori ñu ngi koy envoyé bu moytul xaalis xale bi day jot ci xaalis léegi ci téléphone am papaam xamul ne am na xaalis mënuñ ko yónnee un million ci téléphone am xamu ko yaayam xamu ko mu mu yor ko buñ moytuwul bu ñu yeewoon ne ko gaz jeex na mu ne am naa lu ma yor fii jox leen xamuñu fi ñu jële facture courant bi ñëw na mu ne xaaral ma participer ci xamuñu fu mu jëlee léeg-léeg mu ne xaaral papa ma jëndal la firi wala xaaral ma jëndal la nangam ñëw jëndal leen ñu naan suñu doom ji ak a baax. fekk li muy am ak li muy jot xamuñu fan lay jóge te yëgu ne am na yëguñu ne sax mi ngi am xaalis parce que yor na compte boo xam ne moo ci am accès xaalis dafay jaar li fa jaar moo kii ko ko envoyé ñoo ko mën a xam ak kum ko waxul ak kum ko wax kum ko waxul mënoo ko xam xanaa nga jot ci téléphone am ba gis ko doy waar kon jamono ji jege lool ñu dema dem ba nga xam ne nit ki mën naa tiire xaalis ci compte banque am te du dem banque day relier Orange Money wala weeram ak compte banque am di ko gis di jot xaalis di ko retiré lu doy war kon jamono ji jege na lool loolu la moom la alayhi salaatu salaam jundoon ci xadis bi loolu nag yeneen bi ba mu koy wax dane ci mandargay bés penc la bokk min alaamati saa as-sughra mandargay bés penc yi ndaw yi ci la bokk loolu lu day waar loolu moo tax euh, explosion explosion bi nga xam ne mooy informatique ak NTIC nouvelle technique technologie de l'information et de la communication bi ñuy dund dafa dafa dafa daaneel frontière yi frontière amatul parce que da ngay dugg Amérique ci sa téléphone dugg Maroc ci sa téléphone dugg Màkka ci sa téléphone dugg France ci sa téléphone dugg Mali ci sa téléphone dugg Côte d'Ivoire ci sa téléphone bëtt frontière te amul garde bu lay téye nga dugg wax ak nekk ci dëkk ba génna ñëwaat toog jàpp sa njaaboo kon violé nga téléphone yi ak technologie bi am barrière frontière daaneel na ko wala déet daaneel na barrière frontière bu baax yemu fa waaye dafa jël monde bi def ko benn village planétaire adduna bi léegi comme benn village planétaire loolu moo tax euh, ci yi mondialisation bi indi ci la bokk nga xam ne tubaab bi liñ bëgg mooy américain bi français bi allemand bi italien bi anglais bi euh, espagnol bi façon bi muy penser sa façon de penser sénégalais bi malien bi burkinabé bi guinéen bi capverdien bi mauritanien bi noonu la war a penser noonu la war a xalaatee su xalaateewul noonu ñu ne loolu dafa nekk loo xam ni dafa contraire ak valeur universelle yi nga xam ni moom la euh, mondialisation indi xale américain bi liberté bi mu am ne man su ma neexee nekk góor su ma neexee nekk jigéen su ma neexee nekk góor jigéen su ma neexee nekk ci diggante bi su ma neexee nekk transgenre ñu ne xale sénégalais bi xale français bi xale mauritanien bi guinéen bi ivoirien bi noonu la war a xalaatee parce que moo di benn village planétaire la ah ñëpp ñoo war a bokk gisiin doxaliin ngëm-ngëm jikko comportement melokaan bëgg-bëgg bañ-bañ li ñuy bëgg ñoo ko war a bokk li ñuy bañ ñoo ko war a bokk mu nekk loo xam ni fasaad rek ak yàqute lay lay jur moo tax internet lu mu ñu indil mooy li gaay ji làkk kullu shay'in mutawaffir fi kulli makaan wa fil xiin wa xaalan mooy tout disponible partout et tout de suite tout disponible partout et tout de suite moom la ñu indil mooy lépp disponible fépp boo ko bëggee ci léegi léegi lañ la koy wan lañ la koy jox dañ la koy yekkal léegi mu ñor du xaar hmm? tout disponible partout et tout de suite mooy kullu shay mutawaffir fi kulli makaan wa fi xiin wala wax xaalan loo bëgg ñu jox la ko léegi léegi loolu mooy bi ñu internet indi léegi nag loolu xam nga dafa garaaw parce que bu ñu nee tout disponible partout et tout de suite ah loolu day war loolu moo tax yi nga xam ni moo indi révolution ci wàllu réseaux sociaux yi mooy yi mooy bëgg a tudd bi jiitu mooy euh, réseau internet nga xam ne mi ngi feeñ en 1969 mi ngi commencé Sénégal am fi doole ci année 90 mais mais exactement en 1995 la internet ubbeeku Sénégal commencé di dox ah nekk loo xam ne ñu ngi koy utiliser ci réseau étatique gi suñu euh, gendarmerie police di ko utiliser suñu armée di ko utiliser service di ko utiliser usines yi di ko utiliser entreprise di ko utiliser ensuite ci la tasaaroo commencé benn benn ci kër borom barke yi daan ko utiliser ñu dugg ci deux mille nag mu explosé kër yu bëri ci deux mille lañ ko am ay quatre-vingt-quinze la commencé Sénégal tey nga ñëw ci loolu ba tey li nga xam ne indi na révolution ci jegeel monde bi def ko benn village mooy lu ñuy tuddee email email nga xam ni da ngay am sa boîte ubbi benn email ci benn site moom arobase nangam nga ubbi ci gmail arobase gmail nangam wala nga ubbi ci yahoo wala maktub yi fi amoon wala nga ubbi ci hotmail wala live yooyu ñoo amoon au temps donte léegi gën naa bëri nga ubbi fa li nga xam ne mooy email email boobu ki lay bind lettre fa lay bind fu mu mën di nekk koo ko jox bu la bëggee bind day dugg ci machine am bind la yónnee la loolu moo daaneel lettre moo daaneel télégramme moo daaneel post moo daaneel poste parce que post lettre fa lañ ko doon yónnee soxla too di dem lettre parce que da fay poste pour ñu envoyé la ko léegi sa machine ngay toog bind waa ji mu jot ko à temps réel nga ne ko envoyé naa la xoolal sa email fekk moom mi ngi Amérique ma nga Brésil ma nga Colombie ah wala ma nga dëkk ma nga day ubbi léegi jot te bu jaaree poste dana def ay fan àgg des fois mu léegi da koy jot léegi loolu ay nit commencé ci nga mën a bind nit mu lay bind am na ay saytay ay variations yoo xam ne ci email la email da am koo gis bëgg ko bind ko email mu tontu la ngeen di yebante ci miinante ci ba nga takko ci email la jaar email ñu avancé am lu ñu tuddee. Euh, email yooyu email mi ngi mi ngi tàmbali am en 1971 la ñu commencé utiliser euh, ñu ñëw li ñu tuddee forum forum forum ci internet nga xam ne groupe nit ñoo fay nekk di waxtaan xamante ay góor ak jigéen ay jigéen ay góor ñu ne forum bii pour waxtaanee wàllu sëy la forum bii pour wàllu diine la forum bii pour wàllu économique la forum bii pour wàllu social la forum bii pour wàllu environnement la forum bii pour wàllu sante la. nit benn waaye ubbi forum bi ajouté fa ay nit ñu nekk fa ñu fay waxtaane ku bokkul ci forum bi mënoo fa dugg wala ñu envoyé la lien forum bi nga dugg wala invitation forum kooku mi ngi am en 1980 ñu daw tuuti am lu ñu tuddee bloc bloc ak forum dañoo xaw a niroo mais bokkuñu bloc day xaw a nekk benn genre site internet mais du site mën nga fa wàccee ay audio wàcce fa ay vidéo di cliquer ji déglu di seetaan moom aussi mu ñëw 1994 ñu daw tuuti programme Skype ñëw Skype xaw ma ndax. mag ñi moom xam nañ Skype mais jeune deux mille yi moom xamu na xam nañ Skype Skype ñëw presque Skype bi ñu commencé tasaaroo ci août 2003 ci la tasaaroo bu baax ci pays bëri ci monde bi ñu commencé ko utiliser ñu daw tuuti Facebook ñëw ci début 2000 yi YouTube ñëw ah, ah ñu daw tuuti cinq ci 2005 2007 Twitter ñëw. ñu dawaat tuuti 2007 2007 2008 WhatsApp ñëw WhatsApp de Sénégal ay 2010 11 la fi tasaaroo ñu dawaat tuuti Instagram ñëw ah 2009 2007 2008 Viber ak Telegram encore yooyu yëpp kon nekk loo xam ne créé na tasaaroo bu baax a baax a baax ñu wax nii Telegram yàggoon na mais réseau agent secret yi ñoo ko daan utiliser rawatina américain mais ñu ngi ko bàyyi tasaare ko mu aduna bi 6 octobre 2009 ñu tasaare ko ci aduna bi monde bi yëpp jot ko ñàkk commencé ko utiliser mu nekk loo xam ni euh, aduna bi noonu la yii mooy li ñu tuddee réseaux sociaux ñii ko utiliser ginnaaw ko yeneen xew ci. Euh, euh, entre 2013 euh, ak léegi muy Imo Snapchat ah ak yu mel ni moom yooyu yëpp daal di ci génn ci diggante bi xew ñu ñëw nag ba suñu at yu mujj yii ci li nga xam ne mooy 2018 2017 2018 ñoom TikTok ñëw xam na ñu léegi sax moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy kilifa gi ci internet TikTok. Euh, <coughs> Sénégal bi ñu xoolee ñu yor portable SS yi nga xam ne euh, ay recherche moo ko joxe huit millions sénégalais huit huit million sept cent un mille cent soixante quinze sénégalais yor nañ téléphone seen téléphone yooyu ñu ko yore téléphone yi ci am internet dem na ci quatre vingt dix sept virgule quatre pour cent ci ñoo xam ne téléphone yi utilisé am na internet. bi ñëwee 2016 gis nañu ba euh, sénégalais yi seen yokk seen utiliser internet dafa yokk te li ñu xool mooy Sénégal euh, tranche d'âge bi ëpp lu ñuy utiliser internet mooy diggante 16 ans 25 ans par temps bi ñuy passé ci internet mag ñi duñ ko ci passé ba pare ñoom réseau yi ñu ubbi ci internet mag ñi mag ñi amuñu ko 16 ba. seize ans ba vingt cinq ans dañuy am email am lu ëpp benn whatsapp am telegram am lu ëpp benn compte snapchat am ibo am instagram am tiktok te bu ñu bëri problème email la am whatsapp telegram benn benn am nañ tiktok benn benn am nañ am nañ snapchat mais jeunes yi seize vingt cinq ans ñoom dañ cee sóoru muuxu ci koo ci jël waxuma benn compte whatsapp mais ay compte snapchat ay compte tiktok benn ñaar ñetti compte kon ñoom ñoo ko gën a utiliser mu nekk loo xam ne lu doy waar xool nañ aussi Sénégal réseaux sociaux yi ñu gën utilise utiliser mooy Facebook Instagram TikTok lu bëri Sénégalais ñu ngi Facebook lu bëri Sénégalais ñu ngi Instagram lu bëri Sénégalais ñu ngi TikTok muy jeunes yi di ñu siiw ñi. di ngi ñuy tuddee influenceur te kenn xamul lu ñuy influencé ah ak ñu mel ni ñoom ay woykat ak ay fecckat ak ay théâtre kat ay mbërëg ay bërëkat ak ay ñoom ñëpp ña nga ah, ak ay jàngalekat ay waaraatekat loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko ah, recherche yi li mu joxe mooy million millions 700 mille sénégalais ñu ngi utiliser WhatsApp. loolu di cinquante cinq pour cent deux millions cinq cent ñu ngi utiliser Facebook muy vingt neuf pour cent euh, quatre cent mille sénégalais ñooy utiliser link link aussi xam naa ñu ko xam bëriwul ah muy cinq pour cent deux cent soixante dix mille sénégalais ñu ngi utiliser Instagram loolu à peu près mi ngi nekkoon deux mille seize deux mille sept deux mille dix huit ba diggante bi yokku la mbokk yi danger bi nekk ci réseaux sociaux yi balaa ñuy ñëw danger bi muy am ci biir mariage danger général bi danger général bi ba ca jiitu mooy dafa nekk benn monde bu ubbeeku boo xam ne ki ci nekk yaruñu ko préparé wuñ ko su demee dafay fekk lu baax ak lu bon mën naa for lu baax mën naa for lu loolu ci danger yi la beneen bi mooy tout catégorie sociale wala toutes les catégories sociale ñu ngi ci biir internet da koy fekk bandi fekk fa violeur fekk fa agresseur fekk fa mandikat fekk fa criminel fekk fa borom xam-xam fekk fa nit ku baax fekk fa imam fekk fa ab professeur fekk fa ingénieur fekk fa nit ku am njëriñ ci société am mais fekk fa koo xam ni ziib la maanaam renard la wala lu kon faa nekk di rëbb di xoolum jàpp looloo ko dugal ci internet loolu tax mu ubbi compte Facebook et ainsi borom études yi gars def wàññi ne faux compte yi am ci Facebook faux compte yi mu ëpp compte compte vrai yi te góor goo xam ne góor lu mu ubbi compte def ci photom bind ci Aminata Ndiaye te boo moytuwul euh, gécce seen la tudd wala laatiir wala joge mais mu ubbi compte def ci turu jigéen ubbi compte def ci turu jigéen pour lan pour mën a nax ay jigéen ay leen def leen ay ami am fu mu jaar ak ñoom xam ne am am mag la ubbi compte def ci li nga xam ne moom mooy euh, xale wane ne xale la nga gis koo xam ni Sénégal la nekk ubbi compte wane ne ma nga Amérique jël ay photo ku nekk Amérique wàccee ko ci nekk ci buntu hôtel yeeg buntu nangam woone dëkk yi rafet ainsi de suite ñi nga xam ne matériel la ñuy xool da leen gis koo xam ni dafa ñaaw ba mel ni man lu woone profilam mu xool ci internet benn waaye bu photo mu rafet mu jël ko def ko profil ne man la maa ngi nii tuddee boppam nangam joxe tur joxe foo faux photo faux compte faux tour faux profil lépp foo lépp faux bu bëri ay am nag ajouté leen loolu bokk na ci li nga xam ni am na fa bokk na ci mooy euh, facilitation bind lu la neex bind enregistré baat bu la neex te baat bi mën naa bañ a nekk yow li ngay bind mën naa bañ a nekk dëkk euh, copier coller moo tax ñëpp nekk nañ boroom xam-xam ñëpp ñëpp ay boroom xam-xam lañ ndax copier coller ci internet nga wax benn waaye ne la non di ne ko gis naa ko ban contexte la ko fatwa ci fatwa bi lu ko làmbool lan lañ ko laaj ba mu fatwa loolu est que li ngay laaj ak li laaj benn la fatwa boobu da koo yemale ci benn nit ci benn milieu ci benn lieu wala fatwa bu mën a généraliser léegi ku mu neex nga nekk. faj ci wàllu garab dem gëstu garab bii lan lay faj bind ko ci internet mu jox la nga ñëw ne damay faj teg say garab dem ci àll bi dugg dagg say garab dëbb indi say reen say sunguf tek gëstu ko ci internet bi ku mu neex nga nekk raaqi moccukat seetaan naa ay vidéo benn cheikh buy mocc internet bi nii lay moccee pendant trois mois maa ngi ko doon suivre après léegi moccukat nga léegi da xool benn sëriñ wala benn cheikh bu jàngale benn téere dem naa seetaan ku jàngale laxdari wala ku jàngale risaala bu naa abi zayd al xayrawaani wala ku jàngale muxtasar xalit wala ku jàngale arboona nawawiya léegi copier naa ni mu jàngale damay ñëw jàngale ko kon ni mu ko jàngale bu juumee fu mu juum nga juum loolu ci problème yi am la tey ci ci wàllu internet bi nga xam ni ci wàllu réseaux sociaux yi da koy def ku mu neex nga enregistré foo mënti nekk te kenn mënu ci dara parce que ku am connexion am téléphone rek bokk nga am xel sa xel wér na kenn xamul da am ay trouble kenn xamul da ngaa amee euh, nu euh, kenn xamul da ngay daanu ay rab kenn xamul yow daal mën ngaa yor nga connexion am nga téléphone boo neexee enregistré vidéo wàccee envoyé. soo waxee toj toj en dugg na ba pare soo waxee jàmm dugg na boo waxul jàmm dugg na boo saagawee dugg na boo saagawul dugg na boo tooñee dugg na boo tooñul dugg na en tout cas dugg na lan moo ko dugal mooy am nga téléphone am nga connexion dugal enregistré nga vidéo jàllale nga loolu day war bu ku am connexion rek am téléphone rek mën ngaa bokk est que yow da ngaa war a bokk est-ce que ñii wax yow war ngaa wax est-ce que war nañ laa déglu est que war nañ laa may nopp est-ce que li ngay wax noonu la ni ngi koy waxee noonu la est-ce que li ngay wax sa wax la wala waxu jàmbur la loolu ci problème yi yi yi dund tey ci la bokk bokk na ci mooy il suffit que nga bës benn bouton rek ah adduna yëpp gis ni nga wàccee ko sa page rek adduna yëpp mën koo gis ki nekk léegi fii seetaan ko ki nekk Gambie mën ko seetaan léegi ki léegi léegi mën ko seetaan ci nekk Europe ak Amérique mën ko seetaan léegi ñëpp gisaloo kon loolu foofu li fay jàll war nañ ko xool li fay jàll war nañ ko xool bokk na ci nag mooy des bu mu mën a des foofu bu fekkee ne yow mi ko dugal dindi woo ko wala borom page ba nga ko wàccee ñoo ko moom bu dee waa Facebook ñoo ko mën a dindi bu dee waa YouTube ñoo ko mën a dindi bu dee waa Instagram ñoo ko mën a dindi suñ ko dindiwul mu des fa mën na faa des fa faw ba say sëb teg ko fa moo tax danger bi fi nekk magum jëmm meer magum jëmm meer wala wala yow tànta nga tànta su filmé la ngay pàkkar ni di génnee say yére di fecc di tourné video bi dafay des say sët ñëw fekk ko fi say sëtaat sëtaat ñëw fekk ko fi cent ans deux cent ans après ñu ne gis ngeen seen maam nangam ba mi ngi nii moo doon fecc seen papa sàngam wala seen maam sàngam bu góor ba ah téeméeri ati ginnaaw ñaar téeméeri ati mi ngi nii moo doon fecc nii ngeen gis seen maam mu doon feccee nit ñi ba ñuy jàng moom mi ngi fecc nit ñi ba ñuy jaamu yàlla moom mi ngi fecc bañ filmé ko wàccee ko fi mu des ci mën faa des ay ati at xam ne tey ku ñëw mën na xasee say sët mën ko xasee sa njaboot ñu ne la xanaa yow yaay sëtu sëtu diw mi nekk ci internet bi man sama maam ba at yooyee nekkutoon di fecc de moom lii la doon def moom yow sa maam a ngi nii yow amoo la wax noppi ñun amuñu woon maam di fecc ci internet bi mu nekk musiba bokk na ci mooy internet paaka ñaari boor la mën naa jëriñ mën naa lor moo tax kenn du ne internet araam lu tax mooy day jëriñ ci wàllu xam-xam waaye paaka ñaari boor la de noonu lay yàqee ni nga mën a am paaka paaka bi nga rey ci ginaar ah rey ci ginaar dagg ci soble dagg ci pomme fruit lekk ah, dagg ci yàpp waas ci jën paaka bi jëriñ na la même paaka boobu soo moytuwul mën naa def musiba mën naa jëm nit mën naa rey nit mën naa rey nit wala iyaazu billah ainsi de suite internet silah zu haddayni paaka ñaari boor mën naa jëriñ mën naa lor loolu moo tax kon lor gi bëri na njëriñam mooy mën na laa gaawal léegi nga am benn recherche information bu rapide nga am ko léegi léegi te bu doon internet bi amoon da ngay dem fu sori tayib information dala koy gaawale léegi léegi saa boo yeewoo même boo amul rajo mën ngaa xam li xew ci réew mi boo amul télé mën ngaa xam li xew ci réew mi soo nekkee voyage mën ngaa xam li nekk ci réew mi yaa ngi ci avion mën ngaa xam yaa ngi mën ngaa xam yaa ngi ci train mën ngaa xam li xew kon am na njëriñ ci côté boobu dalay yombalal gëstu ci wàllu xam-xam mais romb na foofu sax ay euh, magasin yu bëri ñu ngi tëj marché yu bëri ñu ngi jaayee fi ñu tax vente en ligne bi te am na ñuy am na benn société buy développé boutique en ligne boutique en ligne vente en ligne am na mais am na ñoo xam ne tey ñu ngi développé développé application boutique en ligne ndax application bi bis bu pare yow boo ci boo ci jëndee wala nga am ci dangay am am genre boutique mu may la nga mën a photo sa marchandise ranger ko ci ay étagère ci biir application bi teg nit ñi di gis nga xam ne kon affaire yaa ngi daw tey vente en ligne bi daaneel na ay ay marché daaneel ay boutique yow li nga doon jaay ci marché bi ñu ngi déplacé wu waa ji da koy def en ligne léegi léegi waa ji commandé mu livré ko te demul marché STM rek la koy def STM lay def rek waa gis ko kon am na njëriñ ci côté yooyu am na ñoo xam ni ñooy wuñ cantine ñooy wuñ boutique nekk ñu marché ñu ngi jaay tasbix seen marché mooy internet bu internet xëyoon taxaw une semaine booy moytuwul problème am ci ñoom parce que chaque jour seen dépense ci lay génn. kon am na njëriñ ci côté boobu mais li gën a yéeme ci internet mooy ñu ngi tasaare daaw bi wala de démb la woon lañ samedi samedi barki démb la woon lan vendredi ñaata xutba àjjuma ngeen gis ñu wàcc ci internet bi ngeen déglu ko bëri na wala bëriwul ñaata ci gindeeku ñaata conférence ñoo jàll démb ci samedi bi conférence bu ñuy def am na ñu nekk mu sori di ko di ko di ko suivre lan moo koy jàllale internet ñaata ñoo gindeeku ci internet bi. ngay romb ci mbedd di dox nit ne la yow yaa nekk ci TikTok te yow nekkoo TikTok sax xëy dañ la faa bi fekk na la ngay jàllale jàngale moo fay jàll ay nit ci gindeeku di ci gis ngay def émission léegi ci benn télé wala ci benn place waa aduna seetaan ko ci même moment bi cinq cent mille personnes un million personnes seetaan ci tàng-tàng ci ay canal yu wute seetaan ko Facebook kii seetaan ko TikTok kii seetaan ko YouTube kii seetaan ko feneen ñu seetaan ko ci seetaan ko ci chaîne télé sax fan nga xam ne bokkul kooku mi ngi tasaare daaw bi tasaare bu doy waa lool lool waaye eh. eh, ay lorom bëri na de am na ay lor ci wàllu aqida am na ñoo xam ne tey internet bi tax na seen pas-pas yàqu am na ñoo xam ne weddi dinañ yàlla internet bi moo fa jaar am na ñoo xam ne internet bi liñ ci jëriñoo mooy tasaare ay bidaa ak i xuraafaat di seetal nit ñi di leen gisaaneel def ay njabar di liggéey ay nit loolu lañ nekkee ci internet bi ñenn ñi lañ fa lan lañ fa nekkee mooy sikki sàkkaloo nit ñi ci pas-pas bu wér jaamu yàlla ñi sikki sàkkaloo nit ñi ci lislaam bi nit ñuy dund ñu koy sikki sàkkaloo nit ñi que yonent yàlla Muhammad biñ topp nii sax moom la yàlla yónni lan mooy wane ne alxuraan mooy téere bi yàlla wàccee ah di sikki sàkkaloo te moom mais sikki sàkkaloo nit ñi mbiru boppam bi ñu sikki sàkk mbiru boppam am na ñu ko jege yoo xam ne waroon na ci sikki sàkk mais du ci sikki sàkk leneen li mooy lor yi ci wàllu jikko lor yi ci wàllu jikko fecc bi summeeku gi woneeku gi fu fulli awra gi awra nekk sa néeg di fecc sol lu bon te yaa ngi sa néeg adduna yëpp di la seetaan li nga jiital feeñ sa jumbax feeñ sa dënd feeñ balaa ay fan nga am ñaata cinq cent mille bi huit cent mille vies léegi bët yooyu yëpp xool la tege tege ci sa tege ci sa yaram bi làmmiñ yooyu yëpp di wax ci sa ci sa yaram wax ci sa tànk sa pooj wax sa biir wax sa wax sa jumbax wax sa mbagg wax sa dënd yooyu yëpp nga yaakaar dina la jik nga feebar yóbbu hôpital rajo analyse diagnostic euh, def euh, momogramme ak lu ne gramme ñu def duñ gis dara duñ gramme duñ ko gis nga jógee fa buñ la yóbbu ngay crise di daanu di wax ko guddi ah xaj bu ñu may dàq deret di may fiyey ah ginaar gi nekk sama ron tànk yi fekk na yaa dem def lu tax nit ñi gis la ay bët ak ay làmmiñ wax te yonent bi asam nee na moytu leen cat sama xeet bokk ñu ëpp la rek sama xeet mooy cat te cat mooy bët ak làmmiñ di wan nit ñi man nii laa toll sama xeesaay a ngi nii sama ñuulaay ngi nii sama njoolaay sama gàttaay sama rëyaay sama tuutiwaay maa ngi nii sama noon yi sama nangam ñi ma bañ nangam te yaakaar duñ ci jëlee ndam loo ciy jëlee mooy bët yooyu xool la am na koo xam dalaa xool bët yàlla nga dee am koo xam bëtu daa xool yàlla nga toskare yàlla nga torox am ku la xool bëtu yaa yées yaa bon yaa salte yaa tilim yaa xasaku am ku xool bëtu yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom yaa bon <laughs> am koo xam ne làmmiñam yàlla na dee la wax yàlla na dee kii yàlla na torox kii mooy seytaan loolu la wax kii moo bon kii yàlla na dee yàlla na feebar kii yàlla na la wax kii yàlla na nangam la wax ku nekk ak lam wax ak lam ak bët ba la xoolee yow defooy askar jàngoo alxuraan respecté woo julli juróom léegi koy jaar ba affaire bi dal dangay day jàll woon gratuitement da lay atteindre ñu yóbbu la fu nekk duñ gis dara sa yi ñu koy saraxloo su papa dem ñu koy saraxloo nag bu ñuul ginaar bu ñuul nag bu xonq ginaar bu xonq juróom-ñaari doomu juróom-ñaari nen juróom-ñaari mbuusu mbiskit juróom-ñaari mbuusu soow ñetti ñetti mbuusu gerte kemb lu ne ñu la koy saraxeloo pour nga wér kan moo ko yóbbee boppam yaa ko yóbbee sa bopp sa yaay du nelaw guddi sa papa du nelaw guddi fu ne ñu dugg fa sonn lool li ñu amoon lépp ñu def ko sa yaay jaay ay takkaayam teggi nattam sa papa lépp fii lu ñu dugg ci pour pour nga wér te ñu ko yóbbee lu tax mooy benn vidéo boo posté benn vidéo boo posté moo ko yóbbee yóbbale yóbbee ko sa léegi am na bu commencé woon ñëw di la bëgg feebar bi déformé na la déformé na la dem na seeti keneen feebar bi changé na la déformé la dem na seeti keneen yaa ngi daanu ay rab yaa ngi yuuxu bàyyi na la fi léegi da ngaa bëggoon a jar tardé nga nga bëggoon jar jaratoo léegi tardé nga jële nga ci ay feebar sonal nga ci sa yaay tegg ne nattam yi lebi na sonal nga sa papa waa koñ bi yëpp xam nañ da ngaa feebar ku romb ngay ñëw jóge hôpital mooy to leen ne hôpital la jóge de ci sëriñ ba la jóge de ku nekk dugg biir këram nit ñi dina daw comme nit ñi dawee gaynde euh, loolu bokk na ci lor ji bokk na ci aussi mooy àndandoo yu bon nit ki day toog papaam ak yaayam naan pourtant moom demul fenn de man sama doom du génn demul fenn moom amul benn àndandoo xarit fekk na téléphone am téléphone bu dee whatsapp mi ngi cinquante group cinquante groupe whatsapp vingt group telegram ñaata la soixante dix ah léegi privé privé chaque jour privé chaque jour mi ngi wax trente cinq personnes ñaata la yéen ñi def mathématique yéen ñi def cent cinq ngi noonu léegi yaayam nee na demul fenn ci kër gi lay toog moom mi ñu dem wala demul kooku moo gën a garaaw ñi dem parce que ki dem ci ñeenti nit juróomi nit lay dem di juróom benn kër juróom juróom ñaari kër ci koñ bi mais kii fan lay dem moom day dem Espagne yaayam ne demul fenn bu toogaa tuuti dem Côte d'Ivoire yaayam ne demul fenn mu ngi ci kër mu tuut tuuti dem Mauritanie mu ne sama doom demul fenn toogaa dem Gambie mu ne demul fenn mu tuuti jógee jóge Thiaroye Azur dem Malika mu ne demul fenn te mu ngi ci biir kër gi de mi ngi ci néeg bi mu toogaa tuuti dem Pikine toog tuuti dem Tëngéej ya toog ba yàgg dem Thiès te mu ngi ci biir kër gi yaayam pa moom dafa yaru ci kër gi lay toog demul fenn amul àndandoo sa doom dalaa dépassé te yëgoo ne dalaa raw àndandoo bu njëkk bi ak bi am ci jamono bi xale utilisé dafa wuti sa doom mi ngi lay nax téye ne mi ngi lay nax demul fenn boobu nga bàyyi ko mu am temps libre bu nekk néeg nga naan moom day tëdd di yeewu rek te ngi ci néeg bi mais tëddul boo duggoon xool ci li mu nekk dem na fi caaroy caaroy gaar dem fi dem fi buntu Pikine dem fi croisement Cambérène dem fi Patte d'Oie dem fi Médina Fass dem Corniche Dakar Mermoz dem Almadies ñëwaat te nee nga amul xarit demul fenn boo xamoon li muy def ñii ci ñii génn moo leen gën a garaw waaw kii génn moom moo leen gën a garaw fuuf te nee nga demul fenn beneen bi mooy danger sécurité yu ci am mu mën naa pirater sa compte buggal fa loo xam ne du yow mën naa jël sa compte pirater ko di wax ak ay nit nit ñu yaakaar na yow la mu leen di laaj xaalis wala muy wax ci sa tur loo xam ne ñoom dañuy yaakaar noonu te du noonu yemu fa mooy nag day yàq dafa am ay lor ci wàllu bët ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu santé américains yi ñu ngi def benn étude bu génn fan yi ñu ne ñoom seen dëkk États-Unis euh, at yi di ñëw maanaam 15 ans yi di ñëw 15 ans yi di ñëw xale yi jeunes yi xale yi ñëppay am problème bët ñëppay teel a ay verre ñëppay teel a mieux xam nga lu ko waral écran bi xale yëpp écran bi xale boobu yor na tablette yor na portable te temps yëpp ci la koy paas te lumière bi dafa fort da yàq ba nañ quinze ans yi di ñëw liñ bëgg mooy ñiy jàng wàllu ophtalmologie ophtalmologie nañ nañ nañ leen yokk parce que ñi nar a am feebaru bët dañuy bëgg su ngeen ngi dégg wax bi war a spécialisé wu ci médecine nañ gën a privilégié wàllu ophtalmologie ndax ñi nga xam ne dañoo nar a am problème bët ci société bi dañoo nar a bëri kon ophtalmologue yi nañu yokk lu garaaw la ñun suñu papa yi dund na ñaata at amuñu problème bët suñu maam yi ñaata at dañ ci doon ku magal a magal dem ba am quatre-vingts ans yor kaamil di ko jàngaru takk wala déet xale yi léegi da ngay boo xam ne trente am amagu fa nga jox kaamil bu ndaw mu ne non man bu ndaw mënu ma cee jàng jox ma kaamil bu mag yow 30 ans mënu koo jàng ci kaamil bu ndaw léegi boo amee 60 ans boo amee 60 ans nooy def problème bët commencé léegi jeunes yi nag ñooy gën a garaaw jeunes yi di ñëw nii génération 2015 bii jëm kaw ah, xam ne ñooy door a am yi di ñëw ñu ñu entamé seen 25 ans jëm 30 ans xale yëpp am problème bët. moo tax ku fi am doom buy buy buy buy jàng médecine na jàngi problème bu bët moo na a gën a bëri xaalis. wax ko mu defi ophtalmologie moom ku ci pare doo sommé après doo sommé da am liggéey ndax problème bët yi dafay bëri loolu ci problème bi kon dafay indi problème mu wér-gu-yaram problème mu bët mais problème mu baat baat sëgg bu métti bi soo xam ne benn place lay def nii trente minutes nekk ci di jouer ci kocc kocc yemu fa problème mu ndigg toogaay bu yàgg bi ci kanamu écran bi toogaay bu yàgg day indi problème mu ndigg ak yeneen ak yeneen ak yeneen bopp buy métti insomnie balaa ngay tëdd ne ci mu dégager sa nelaw yi lumière bi yóbbu nelaw yi ngay toog deux heures du matin une heure du matin doo nelaw trois heures du matin na lay dem mais yemu fa day gën a indi génération bu gën a nilaar gën a nilaar ci wàllu jàng imagineel xale bu war a jàngi war a dugg classe huit heures sept heures war naa fekk mu départ papa mag yaayam dem tëddi mu reer dugg néegam nekk ci téléphone am di connecté ba deux heures du matin ñu yee ko sept yaa ngi day ñëw fëgg jógal julli moom xalaat dañ koy fëgg jógal mu fudd un um, papam demaat yaayam ñëwaat yaat yaat juróomi yoon mu door a jóg bu jógee ndékkiwul rangé wul ay bagage am ah rangé ay bagage am amaana sanguwul wala sangu profité lay def du sangu ba set ah tranquille mu départ ci ñàkk tranquille fitna ak yàkkamti ñëw dugg école concentré wul xel wi dalul apaisé wul tranquillité bi nekk fii amul stabilité nelaw yi doy li professeur bi wax dana ci xam dara lu mu koy jural dañu laar da koy jural xel mi reposé wul xel mu reposé wul mënta partiriser mënta mënta recevoir mënta jàpp mënta takk mënta mokkal bu ñëwee day dem parce que xel mi noppaluwul dafa sonn te xel dafa laaj noppal loolu ci jafe-jafe la bokk na ci. Euh, mooy tax na ñu bëri léegi sa waratuñ jàng tax nañu ñu léegi sa waratuñ jàng li nga xam ne mooy dars yi am bu fekkoon ak internet yi am ak toog na man ah non man dama koy dama koy dama koy kal en man dama koy kal ci youtube bi laa koy kal kenn nangootul jàngi ah te barke xam-xam dem toog bokkut ak nga kal ko di déglu da nga koy kal ñu wala téléphone da nga koy kal benn waaye ñëw jox la kaasu ataaya ngeen di waxtaan ngeen di waxtaan ci ataaya bi neex na neexul ñor na ñorul tàng na sedd ci ñaata minute moo la raw darsu bi ñaata minute ci rek ci xool ataaya bi rek neex na neexul ñor na ñorul tàng na sedd na ñaata minute moo la raw ñaata minute <laughs> cinq minutes dem na léegi yow soo ñëwaatee doo concentré wu parce que lu bëri rëcc na la dèjà ci benn kaas ataaya boo doon naan rek ah weex na weexut saf na safut ñor na ñorut alors boo demoon ci darsu bi loolu doo ci am da ngay loolu bokk na ci li nga xam ne indi na ko bu fekkee nag dégâts yi nga xam ne internet da koy def ci wàllu réseaux sociaux daf koy def ci wàllu ci wàllu couple ci wàllu sëy ci wàllu mariage mooy day fekk ñaar ñaar ñaar ñu jege physiquement jege physiquement mu sorole leen psychologiquement mentalement jëkkër ji day toog ma nga France jabar ji nekk yëmbal jabar ji nekk yëmbal des fois jëkkër ji day ñëw nuyu jabar ji du ko dégg nuyu ko du ko dégg des fois ñoom ñaar ñu toog une heure de temps wala trente minutes kenn du wax kii mi ngi ah kee même chose kenn du wax trente minutes une de temps kenn ku nekk yaa ngi 30 minutes kii 30 minutes kii wax amul jigéen bi pare sangu dugg ci waañ bi nekk ci xale yi bu ñëwaatee au lieu que mu waxtaan xool day xool appel en absence ban laa am ñaata message laa fi dégluwut kan laa war a vocal kan laa war a vocal loolu ci problème bi la kon day day day distancé day distancé lu jege beneen bi mooy jigéen ñu bëri au lieu que ñu jël seen jëkkër def ko seen xarit jëkkër yu bëri au lieu que ñu jël seen jabar def ko seen xarit dañuy dekk ci dañuy dem dugg gurubu gurubu euh, jubbanti sa jëkkër gurubu euh, redresser sa jabar gurubu euh, yar sa jabar gurubu toppatoo sa jëkkër daña fa nekk kenn xamul nu ñu toppatoo wee jëkkër ah, gurubu femme femme modèle te kenn benn femme du ci modèle ah guru bu mari intelligent te ñoom ñëpp ay con léegi nga ne kii nekk ci groupe yi kii nekk ci groupe yi yéen yéen ba ngeen di xamante groupe moo leen xamal ci groupe nga ko takk ci groupe lañ nga ko may ci groupe nga sëy yow ci groupe ci groupe nga sëy léegi seen lépp groupe kii dee ñëw naan la waxtaanam yëpp mooy groupe sàngam de dafa am benn jigéen boo xam ne li ko jëkkëram def kii ne waa groupe sàngam de dafa am benn jëkkër li ko jabaram def ne ci détail yooyu ci lu ëpp luñ fay nett ci groupe yooyu lépp ay histoire raconté li ci ëpp lu dëkk histoire ñu créé la en toute pièce daaj ci paquet mu bees tàq ñu teg fa dara dara du ci dëkk wala ci dëgg tuuti la wala tuuti dëgg te Sénégal day day day yokku day fekk a mu yokku ci catu a bi tuuti langal kee ñëw langal bu yàggee a bi gis kenn ku nekk buy raconte histoire bi da koy raconté ak moom ni mu ko arrangé bu ma ko joxee Omar Omar raconté ko ni mu ko arrangé bu ko transmettre keneen kooku jël ko ni mu ko arrangé ñettalee ko na ko arrangé yokku te la ko arrangé affaire bi di yokku rek di ko defee mbir mi noonu lay demee léegoo léeg li ci garaaw ma léeg jigéen joo xam ne benn histoire la lire ci benn groupe WhatsApp wala Facebook. histoire bi du moom xeewul këram xeewul Sénégal xeewul Afrique yoonam nekku ci du mbokkam jegewu ko xamu ko xamu leen xamuñu ko mu jël ci part jël ci revanche jëkkër ji ñëw fekk ko mu nekk deux cent sur cent bët yi génn lex yi ëfu moom ci boppam mu yokk néew yi kan la meral meralul jëkkëram de histoire bi ñu nettali moom la mer mere ci góor ñi mere ci borom këram te tooñu ko defu ko te xam na sax xamul sax ndax histoire bi dëgg la wala du dëgg léegi wala contraire bi gis góor goo xam ne day ñëw lii ci benn groupe am benn jigéen boo xam dafa manqué respect borom këram da ko def jigéen au lieu mu kooku dafa reew jigéen ñi dañoo reew te moom jigéen benn jigéen tooñu ko ah kee lañ nett histoire bi jigéen ñëpp a yem te jigéen ñëpp yemuñu de nii lañ mel te ñëpp meluñu noonu de dañ leen a war a yar xanaa ki tooñ lañ war a yar nit ki tooñu lu ci yoonam ñëpp lay généraliser affaire bi da koy jàppal mer. xol bi tàng day ñëw toog au moo xam ne lii affaire fiction la dara du ci réalité léegi day ñëw jël affaire bi histoire réalité bi mer gi mu sotti ko soxna boobu ci jafe-jafe yi ñu dund ci li réseaux sociaux yi def ci la bokk beneen bi gën a garaaw mooy toxal toxal toxal secret sa sa mariage dem yóbbu ko ci place bi tey sama jëkkër dama koo tegal ndékki muy jéem a jaay tàng xol te li muy jot te dara am motut dara am motut ma lijjanti ba defal ko ndékki muy am lu muy kaas ak yooyu falaa ko romb léegi loolu foo ko war a waxtaane Facebook WhatsApp nga ko war a waxtaanee Instagram mooy palaasal am ah ku góor ki day ñëw moom it ñëw ci groupe ya moromam ya nekk ah tey sama jabar teg naa ko palaasam te palaasam la mës a nekk nag mais ñu tey da koo teg palaasam te moom mi ngi woon palaasam naka jekk parce que mooy jabaram palaasam la mais ma koo teg palaasam parce que nangam ak nangam fan la koy waxee su réseaux sociaux yi léegi mu fekk fa benn waay boo xam ni boo muytuwul moom bu duggee këram du sëqat parce que yéex nga koo def waaye waxoon naa la ko bu yàgg xam ko di ko xam loolu jigéen ñi ci lañ war a ràññee ci la bokk. mag ñi dañuy nettali ñu ne dafa benn jigéen boo xam ne moo xaritam euh, xarit bi saa bu ñëwee day fekk jëkkër ji ko maltraité ci biir kër gi mu ne ko da ngaa fay da ngaa war a fay takk say bagage dem te man boo takkee say bagage ma jàppale la kii mënu laa yor ba pare mayu la jàmm ci guddi gi ndaw si jàppanteeg borom këram borom kër gi dóor ko mu takk ay bagaasam dem di wooyi xarit bi ci ci fajar gi suba teel gi mu dem di woy xarit bi comme ay dëkk àll la mu ñëw ba ci néegu ñax bi néegu ñax bi jëgg xarit bu jigéen bi di wax borom këram naan ko waa léegi dimbali mi nga yeewu nga yeewi ma comme suba jot na balaa nit balaa nit ñi di yeewu dimbali ma nga nga nga yeewi ma maam koo dóor ba yeewu mu ne ko dimbali mi nga yeewi ma ma ma ma rooti defar ndékki balaa nit ñi di yeewu su ma di xaawee ko fekk ndaw si. daa takkoon ay bagaasam ndaw si jël ko yom toog ñu toog ba mu naaj ku jigéen ki ñëw fekk ndaw si takk ay bagaasam mu ne ko yow takk nga say bagaas sa demoo xanaa mu ma woon woo si ma jël la say bagaas yow da ngaa mu ne ko yii man ñu ngi may dóor mais kenn takkaguma nag man kenn takkaguma tollaguma fu ñu may takkee ci ay lal ak di di ma tekki ndaw si xam li mu koy wax mu te tekk yoolu yor si yoolu si génnaat dem moo tax léeg-léeg da ngay nettali sa histoire am ku la nekk di la xam bu fekk na yow jàmm ji nga nekk la nga yéenewul la koo iñaane parce que moom amul jàmm mu bëgg nga ñàkk jàmm li wolof di wax ne picc mu nu ñu koy waxee ci picc mu ay tànkam lakk dafay bëgg ma loolu fekk na moom amul jàmm de mais jàmm ji nga nekk moom yéene danaa yéene musiba jàmm ji la la la bëggalu léegi moom lan lay def da xool du mu la ko yàqale naan la yow da ngaa ñàkk fay la ay bu doon man fekk na li muy dund du la ko wax yàlla xam du la ko wax yaa gën nekk ci jàmm yàgg gën a nekk sharab mais iñaane na la da koo soxore te du la ko tax mbiru sëy kenn di ko génnee di ko teg ci place publique yaa si borom kër la rek leen ko munu ko am na kilifa yi takkoon sëy bi kilifa yaa ngi nañ dem ci kilifa yi am ngay mbokk am nay mbokk am nga ndijaay am na ndijaay am nga am nga papa am na papa ah kilifa yaa ngi dem leen seeti kilifa imaam a ngi fi dem leen seeti kilifa yi mais du ñuy du ñuy jël di ko teg ci te boo ko tegee ci réseaux yooyu yi da ngay gis koo xam ni daa nite mu wax ci ku woon wax ci borom xol bu baax wax ci borom xol bu bon wax ci ku normal wax ci ku normal wax mag wax ci xale wax ci ku responsable wax ci ku responsable wax ci ko defee xalaat yooyu yëpp boo ko jëlee mën na laa yàqal bokk na ci jafe-jafe yooyu mooy da ngay gis koo xam ni. day am jigéen bu ñëw wax problème am wax situation fekk léeg-léeg dara du ci dëkk ñëw ci benn groupe ah man de maa ngi ci jàmm ak salaam man li may dund sama borom kër li may li may toppatoo keneen ñëw man jàmm ji ma am sama soxla li may defal ni may toppatoowee ni ma bëggee du ma wax mu teg ci baat du tontu fekk yooyu yëpp dara ci dëkk mu fekk ko ci. léegi fenn waaye na léegi moom pourquoi amul lii tey par la force bu demee kër ga soxnaam bu waxee warul tontu lu mu wax da ko war a jëfe keneen ki dem moom it même chose ah kii li muy defal ja li muy defal li muy defal jabaram sama borom kër dama kaa war a defal ngay comparer situation yu bokkul comparer réalité yu bokkul comparer milieu yu bokkul comparer jikko yu bokkul xam nga lu tax amaa amaana ndaw si dafa sedd guy borom këram tànk ku sedd guy mën naa supporter ku tàng no wala déet mën na ko amaana ndaw si dafa tàng jir boroom kër gi seetu ko dañu mën a ànd wala dañu mën a ànd dañu mën a ànd kon yéen ñaar bokk leen rajaal léegi yow si boroom kër daa gaaw a mer nga gaaw a mer mu gaaw a gett nga gaaw a gett mu gaaw ñiñ nga gaaw a ñiñ mu gaaw a xuloo nga gaaw a xuloo mu gaaw a xeex nga gaaw a xeex mu gaaw a saag nga gaaw a saag yéen ñaar kos rek day tàkk kos kos buñ kosee mu tàkk ñee buñ kosee mën naa kos muy fay di kos muy fay lu taal seen bos yombul mais yow sa bos waxuma kos de mais boo xawee kos mu tàkk parce que yéen ñaar yi leen boole tempérament bi ngeen am ah musiba yow deux cent à l'heure ngay daw moom muy daw deux cent à l'heure yéen ñaar li ñaar ñee jigu leen de réalité ñaar ñee du seen réalité tempérament ñaar ñee du seen tempérament seen jikko ñaar ñele bokk leen jikko yéen ñaar bokk leen jikko beneen bi mën ngeen bañ a bokk situation amaana yow da ngaa sëy si ci kër gu mag kër gu mag nga sëy kër gu mag gi da awante yow ku jigéen bi da awante yow sëy woo ci kër gu mag amaana ci appartement nga nekk yow rek yaa ko nekk amul awante lépp yaa koy liggéey réalité yi mënul bokk yow da sëy si kër gu mag kër gu mag léeg lekk day am ay affaires yu sew yu fa am bokk rek boo nekkee yaa ci jëkka rek kon réalité yi di benn kii wax xamoo moom fan la sëy ban milieu kër gu mag la nekk wala këram la nekk xamoo ndax Sénégal la nekk wala à l'étranger ku nekk Sénégal ni muy sëyee ak ku nekk ak borom këram à l'étranger réalité yi bokkul te kii wax xamoo ci ban réalité la nekk waaw bu ko jël wàccee ko sa réalité maag sama borom kër tey bi ñu wàccee dañoo ànd doxantu dem jardin dem ca euh, tefes ga dem ca dex ga dem nangam nga taxaw di xaar kii rek mooy fonto man ba ma sëy ba léegi mosuma dem mosuma doxantu mag dem tefes mosuñu léegi kii wax xam nga fa nga nekk nga xam nga France la rek wala Côte d'Ivoire wala Maroc nga xam ne doxantu fa dem yooyu yomb na loolu gën ñëw nga ne ko il faut ñu dem nangam amaana fële déplacé wu yomb na bu dee Dakar boo dee déplacé wu dafay wàññi dem nekk dikk bi dina ko jëlee temps bu wala déet beneen bi temps bi muy liggéeyam ndax moom lu mu bindoo may na ko amoo compréhension boobu comme kee daal borom këram da koy defal man ah, da koy defal man tamit sama soxna koy defal comparé réalité yi bokkul mu la problème bu baax a baax te loolu ci jafe yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu koy dund euh, bokk na ci ba tey mooy jafe-jafe yi muy indi mooy réseaux sociaux yi daf lay def nga nekk nit ku nit ku ku individuel ku mën a wéet ku mën a isolé wu te doo ci bàyyi xel doo ci bàyyi xel da nga xam day xëy programme bi déglu ay audio yu bëri seetaan ay vidéo yu bëri léegi du tal relation sociale bi war a am diggante ak soxna mu def ko benn fan ñaari fan ñetti fan ñeenti fan semaine bu yàggee bu yàggee mu commencé dégrader relation bi am yàqu-yàqu yu bëri am wax waxam commencé wàññeeku muy gën a wéet affaire di gën a wéet ak affaire bi amaana soxnaam intéressé wu affaire yi intéressé wu wala ko sori wu ci bu yàggee mu yàqu léeg-léeg ku jigéen bi ci lay noonu léeg-léeg li gën a garaaw fi ñu toll ci réseaux sociaux yi mooy am na jigéen ñoo xam ne ñi moom ñoo dox seen téléphone seen borom kër. ñu waxantee dëgg ñu waxantee dëgg am na jigéen ñoo xam ne ñemewu ñoo jox seen am na góor ñoo xam ni ñemewu ñoo jox seen téléphone seen jabar loolu garaaw nag kenn ku nekk sa téléphone daa am mot de passe mot bi soo koy tijji doora tijji sa mot de passe de ay xool gauche xool droit xool ci kaw doora tijji mot de ah ba wax soxna ci mot de passe da ngay teg ay ay pas en arrière reculer moom aussi buy wax yow ba a tijji téléphone am mot de passe tafu pour tijji téléphone pour bëggul nga xam mot de passe am yow xamoo mot de passe loolu ngeen yaakaar ni nekkul lu doy waar ci ñuy dencante ngeen yéen ñaar da ngeen a sérieux da ngeen a ngeen bëggante ngeen ay xarit ngeen wóoluwante ngeen am ngeen confiance na xam te amu fi. li fi indi loolu dafa indi loolu bu bëree bëri ñemewuñ seen soxla laal seen téléphone ñoo xam ne tey buñ ñu génnoon seen kër fàtte téléphone bi bu ñu la rombee vitesse ci bu ñu la fiiree téléphone bi fàtte ci kaw bu ñu la fiiree ba moytu hôpital du la faj mais jigéen ñoo xam ne bu ñu génnoon seen borom kër ne jigéen bi bu fàttee seen téléphone ci kër bi bu ñu duggee bu ñu fëlee bunt bi ku taxawoon ci bunt bi bu la bunt bi dalee boo mooy tënk nga defoon daal ndax lan fitna yi téléphone gi fàtte ci biir kër gi day waar am na jigéen ñoo xam ni ñemewuñoo seen borom kër dugg seen page Facebook ci seen privé am na góor ñoo xam ne ñemewuñ seen soxna dugg seen page Facebook ci seen privé wala seen WhatsApp seen privé WhatsApp lu doy waar léegi loolu lan lay indi manque de confiance lan lay indi mooy ay sikki sàkk lay def ci bopp bi ay dut ay dut lay def ci bopp bi am na koo xam ni bu duggee ci kër gi boo dugg ci kër gi téléphone yi ci poche yi la def su àggee fi mu koy summi teg moom moo fa am accès moom moo fa am accès su ko jëlaatee poosam la koy def su ko yorewee daa toog wéet moom kese dem di ko jële ah, loolu lu doy waar lu doy waar moo tax téléphone yi buñ doon wax téléphone yi buñ doon wax ah dina doy waar mais kon téléphone bi saa boo duggee ci kër gi day wax journée bi bu yeewoo wax boo jëdd mu wax dana doy waar beneen bi amaana sax problème confiance amul manque de confiance amul jubadi amul mais bëgg secret bi ak war na ne téléphone affaire personnelle la comme ni ko tubaab bi jàngalee ay jigéen joo xam ne am na vocal yu mu bëgg a defee te borom këram dugg na ci kër gi mënu koo def wala bu koy def da koy bàyyi saal bi dugg ci néeg bi tëj néeg bi def vocal génn ah vocal boo xam ne da ngay dugg néeg tëj ko te borom kër nekk après nga génn da ngay bàyyi saal néeg bi boobu for na vocal boo xam ne da ngay bàyyi soxna ci saal bi ci biir néeg bi tëj ko pour def vocal vocal boobu for na de. moral boobu foor na ñu ne déet ngay gis góor goo xam ni day tëdd ñu ko benn waaye ne tale nelaw nelaw ba soxna si nelaw mu jël téléphone am nax ko ba nelaw moom mu yeewu fekk nelawul moom léegi jël téléphone am ba nekk à l'aise bu soxna si loxo bi dee woon nii rek sànni na téléphone léeg-léeg soxna si lay doon day bàyyi borom këram nelaw mu nekk téléphone borom kër gi sànnee loxo teg na téléphone bi ah jafe-jafe am na moo tax réseau yi dégâts yi ci nekk am nga affaire yi avant sax réseau yi di am avant réseau yi di am réseau internet yi sax avant muy am télé rek télé rek dafa yàgg def dégâts télé benn borom xam-xam bu mag bu nekk Arabie Saoudite mi ngi nettali histoire bu doy waar nee na am na jigéen joo xam ne jigéen joo xam ne li tas seeyam mooy télé télé moo tas seeyam dafa am benn journaliste bu rafet bu góor buy génn ci waa jigéen ñi def journal ndaw si day ñëw taxaw ci kanamu télé bi di ko xool day jóge fauteuil bi ñëw toog ci kanamu télé bi jàkkaarloo moom ji ko xool ñu ne déet mu dem ba yàgg di fóon télé bi benn bis papa ji wàcc fekk télé ba doon def journal dafa paan seen dañoo paan ba heure bi ñu war a def journal jàll journal bi ñu rek bi ñu ko retardé papa ji wàcc ñëw ci kër gi toog toog jàpp télé bi télé bi baax jékki-jékki ñëw bi mu ñëwee waa ji def journal yaay ji toog xale bi doom bu jigéen dem ba ci kanamu télé bi di def nii ba yàgg mu fóon waa ji papa ne ko looy def nii mu ne ko sama yaay bu génnee nii lay ko jëlal say say kilik ak say kalak ak say kaaxe nga dem kooku loolu moo yàq sëy mais jigéen ñu bëri aussi réseaux sociaux yi ngi mi ngi def ay dégâts ci seen seen sëñ ngi yàq bu bëree bëri ci seen sëñ léeg-léeg day sëgg ci téléphone bi waxuma la añ beeg reer ko de waxuma la yooyu de sombi bi sombi bi xëm sombi des fois ndox mi mu ndox mi ñeer des fois café gi ñeer ndox mu tàng mi des fois bu ñeer ba marmite bi di xeeñ lan la mooy dafa am benn affaire bu mu doon suivre affaire bi jël na ko affaire bi Amérique la xewee jël na ko génnee ko Sénégal naaw la ko wàccee ko Amérique fàtte na waa ji ma togg ba xam na bu xamee ci lay door a yëg ni moom ñëpp yoon Amérique mi ngi Sénégal mu xeeñ ko ci lay daw dem ci wàññi del si waat na Sénégal fekk togg bi xam na ba pare des fois day tàngal ndox war a sang ay doomam sëgg ci affaire bi ba doom ji dem laal ndox mu tàng mu tuur mu lakk fekk mu ngi sëgg ci kii bi loolu ci ñu def dagaa ci la bokk des fois ku góor ki ci boppam teg ataayam sukk ci affaire bi ataaya ba xëm balaa da yàqu gaz yàqu ndox yàqu suukar yàqu war nga yàqu wala léegoo lekk euh, circulation bi moom bokku ci waaye boo ko doon wax nit day daw ba na rël nga xool ko mu gaaw a teg téléphone bi nit di dawal di vocal dawal di vocal dawal di vocal loolu ci musibay réseaux sociaux ci la bokk kenn xamut noo koy lijjantee lu day waar euh, bokk na ci nag li gën a garaaw ni muy tasee sëy mooy génne li ma waxoon sànq mais ci beneen façon mooy siiwal mbóotu siiwal mbóotu sëy jël say vocal yu la sa jëkkër wax ci privé yónnee ko sa yaay yónnee ko sa sœur yónnee ko sa ndijaay yónnee ko say xarit yónnee ko sa fréquentation yónnee ko seen groupe sa groupe bu jigéen léegi groupe ba ba pare naan leen audio yi nag bu ko kenn génnee bu ko kenn génnee nga jékki-jékki mu nekk ci réseaux sociaux nekk ci ay page Facebook nga naan waa maa ko woon waaye bu ko kenn génn bu kenn génnee ci jamono jii nii nit ñi li ñuy bañ jamono ji mooy ko yow ngay wax la nit privé privé xanaa privé moo gën a doy war groupe nit ki nga waxal privé génnee ko léegi yow nga yónnee ko ci groupe naan ko ko kenn génne kenn du la ko ku koy génne doo ko xam bu deux cent cinquante personnes ah groupe bu cinq cent personnes groupe bu huit cent personnes wala neuf cent léegi ku koy génne mën nga koo xam ba pare naan waaye bu ko kenn génnee histoire bu doxoon sama diggante ak moom la léegi maa ngi déglu seen conseil kenn du la conseil dañ lay yàqat dañ lay déconseillé day gis naan ñaw yéene woon naa ko de xaaral conseil lay man li ma ko wax yow tasal sa da ngaa ñàkk fayda mu tas sa yëpp na lekk-lekk jigéen bi naan diw ma ma wax naa tas sama sëy après jékki-jékki sama borom tax mbiru biir nekk mbiru sëy nañ nay nañ ci naj nañ ci avaar ci di ko tasaare lu koo xam ne yaakaar nañ bu àggee ci moom wóor la ko maandu la te dina def le tout pour defar te yàlla tax ay secret yu bari ci wàllu sëy ñu ngi ci biti bind jël sa page Facebook bind liste dox sa diggante ak sa borom kër ba pare def point final ne maa ngi déglu seen conseil lan ngeen may orienté lu ngeen may conseil foofu la ñuy conseil foofu la ñuy orienté mooy weer nga sa benn waaye def ko capture écran yónnee ko sa borom kër yónnee ko xaritam yónnee ko papaam yónnee ko yaayam yónnee ko ay sëram mu def benn révolte léegi famille dugg ci mu nekk léegi yenn ñaar la woon léegi guerre entre famille la ku nekk di ci wax ku ci war a wax wax ci ku ci war a wax wax ci ku ci yoonam nekk wax ci ku ci yoonam nekkul wax ci ku bëgg a defare wax ci ku bëgg a yàq wax ci su ko defee loolu du jur lu baax du jur aussi li nga xam ni euh, moom mooy moom mooy jàmm euh, bokk na ci mooy jigéen ñu bëri mu ngi doxalee seen sëy xool ñu ni seen boroom kër bëgg mais lañuy jëlee ci groupe yooyu moom la ñuy appliqué ci kër gi tey jigéen joo xam ni dafa bëri woon jàmm déggal borom këram toppatoo sëyam mën a sëy xëy xëy ceet yi dëgër bopp dëgër bopp rancune changé complètement fekk lam doon am moom lay am ba kër gi dara maa mànkewul dara changé wu fi de mais réseaux sociaux yi ñoo ko changé gisoon borom kër goo xam ne góor bu baax bëgg jabaram di ko toppatoo yiwe ci moom euh, soxorul ci moom baax ci moom jékki-jékki réseaux ne ko biir ci benn groupe wala ñuy waxtaan ci benn groupe non gis nga si soxna nag boo baaxee ci moom trop dalay yeb de léegi boo baaxul si soxna kan ngay baax waa mbedd mi ah doo ko yërëmee trop dalay yeb de des fois foog nga violent des fois foog nga soxor te ki koy wax benn daf la boo xam ne am na lu manqué ci bopp léegi nga jël ñëw jékki-jékki rek mu ci kër ci këcc boo ñëwoon da ngay salaamaaleykum nuyoo waxtaan nga dugg ne këcc ah lu tax ne ko non ça va ça va quoi ça va commencé changé dama doon wax ubbi sa gémmiñ kër gi da nga doon nekk di ree léegi da ngay keral tëj ngay def yow yaa njëkk a sonn ñëpp dèjà yaa parce que lu tax mooy li ngay def naturel quoi da ngay tricher du sa jikko da ngay da ngaa mel ni ku yenu dara da nga yennee ko nga mel ni nga meloon rek da ngay sonn su ko defee kër gi ngeen ni benn climat boo xam ne climat bi nekkul woon yow dee daal da tàng ci biir di saxaar kër gi tàng nga tàng kër gi tàng te kër gi mënoon naa seet mais yaa tàngal sa bopp tàngal climat bi mu tàng su ko defee yow yaa déclenché wala yaa yaa effectivement yaa déclenché hostilité ci hostilité am fi woon yaa ko yaa ko déclenché nga indi fi début début des hostilités boo xam ne mënul na fi ñàkk loolu bokk na ci li nga xam ni ñuy bàyyi xel gis nga jigéen su bëggee sëyam neex day neex góor su bëggee sëyam neex day neex jigéen su bëggee sëyam naqari day naqari góor su bëggee sëyam naqari day naqari sëy kenn ci dugal ay xarit yu bëri ay conseil yu bëri ay xalaat yu bëri ay xalaatal leen ma xelal leen ma yu bëri li benn waaye waxoon ku bari conseil dof bu bëri ay conseil da dox soo jógoon léegi léegi rek léegi léegi ne man de daa am fu bëgg a dem ma la doon laaj yéen li ngeen ci xalaat ma bàyyi ba julli timis jam wala boo julli gee dem yaa naan la yii non boo jullee timis circulation bi day bëri xaar ba ci kanam xaar ba gee dina non gee sax kii na da ngay bàyyi ba ay vingt une heures vingt deux conseil yu bëri bala ngaa jël décision boobu moytuwul nga dof nit ñi loo indi xalaat yu bëri lañ ciy joxe taabal jii rek taabal jii rek su ma ci doon laajte xalaat taabal ji ngeen ko gisee taabal ji rafet na de ñu ne la loolu dafa xaw a rafet taabal ji kay rafet bu ko defal mënul dara ñu ne la format bi ci boppam vraiment taabal bi kenn xamul carré la wala rectangle la wala kenn xamul lu muy ñu ne la taabal bi guddaay bi moo faussé bala nga fay jógee di nga am ay version version yoo xam ne à la fin doo xam ban version ngay jël ban version ngay jël karo jàkka ji rek boo ko laajte woon. karo yi ni mel rafet na naa non kii moom surtout quoi karo yi moom du karo jàkka quoi lii lii lii ni mu koy defee karo jàkka benn waaye noo non pourtant karo yi rafet na xëy na rek xaw naa rafet tuuti rek kenn non karo yi kay dafa ñaaw yi karo yi xalaat yu bëri boo koy jël ci nit ñi doo dem léegi nag lu demee ñu sëy ñi lay xalaate maîtriser wuñ sa sëy maîtriser wuñ sa vécu quotidien maîtriser wuñ réalité say bi maîtriser wuñ sa tempérament sa tempérament borom kër sa tempérament soxna maîtriser wuñ seen comportement xamuñu seen démb xamuñu seen tey li ngeen di conseillé nan la di conseillé et puis est ce que ku nekk moo war a wax ci sëy na koo xam ne bu ñuy wax affaire sëy daa war a tëj làmmiñam lu tax moom du référence du modèle moom du ci référence du ci modèle ba moytuwul bàyyi na ñetti soxla bu dee ku jigéen ki soo moytuwul bi mooy troisième mariage ah am na soxna bu mu dóoroon bët bi toj am na koo xam ne ba mu ëmbee la ko wéq ci biir am na koo xam ne ba mu koy ndox mu sedd bi la boole ndox beeg kaas baag zido ko léegi kooku bu ñuy wax ci sëy war naa wax référence moom modèle la ci war naa wax kooku kan lay conseillé kooku ku muy conseillé sa say violence lay doon di parce que moom léppam violence la këdd périer mbëkk dóor saaga kooku boo ko defee conseil foo jëm la lay conseil violence lay conseil jigéen boo xam dafa gaaw a ñaaw ñaan baat salaamaaleykum mu ne mu sama baat bu dee góor nga rek may ma sama baat kooku dinañ ko laaj conseil kooku boo ko laajee conseil lu mu lay wax ah ñaanal baat yaa ngi bàyyi sa góor ñi foog nga won leen sa bopp foog nga won leen koo doon foog nga won leen ni nga mel yooyu la lay wax de léegi kooku war nga kaa dégg waroo ko dégg loolu moo tax foog nga xam ci kan ngay jël conseil ci kan nga dul jël conseil li ñu gis mooy effectivement divorce dafa yokk te tey la waroon na gën a wàññeeku mais tey la gën a yokk tey la gën yokk loolu nag euh, réseaux sociaux yi dañ cee joué li nga xam ne moom mooy euh, rôle boo xam ne rôle bu mag a mag la euh, na ci mooy nit ñi ci yi dañuy xër di wane benn façon vie boo xam ne bu parfaite te dara du ci dëkk léegi koo xam ne la muy nettali pour yow pour yëngal la pour mer loola la pour mer loola yëngal la fekk la muy wax benn bii de couple boo xam ne ni boo ko toppee zéro faute la da lay ne moom jigéen moo ci gën borom këram moo gën ci borom kër yi yéen jigéen ñi may waxal ci groupe bi maa leen gën sama borom kër moo gën seen borom kër. man sama kër lépp lay normal sama sëy normal sama borom sama borom kër léppam normal dara manqué wu mais yéen jigéen ñi seen dara normal seen borom kër dara dara normal léegi bu fa waxee loolu jël borom këram laalal ko asamaan jël boppam laalal ko asamaan yéen waxuma mu teg leen ci suuf de mu yóbbu leen suuf sox ci biir suuf si wàcce leen ba ci biir a biir léegi lan ngeen di def mooy nekk ñun dunduñu ah fekk vie partie boobu imaginaire la vie bu imaginaire moo ko imaginaire def wàccee foofu yéen ngeen yëg ne kenn ku nekk ñun nii lañ war a mel pourquoi melu ñu nii ngeen dem yëngal seen si kan moo ko yëngal benn jigéen bu ñëw imaginer leen benn vie de couple bu parfait sans faute tegal leen vie de couple bu amul bu amul problème am bu amoon yonente bi alayhi salaatu lay am këram du yëngatu mais boo jàngee suratul ahzab qul in kuntunna turidna xayaata dunia wa zinataha fa taalayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil xëy xëy ne ko yonent bi yow yonent nga mais yaay buur alalu jur ñi sa loxo la nekk jabaru Kisra ci ay mat laa lay tëdd ay lalu jabaru Kaysar buuru Romain même chose ñu tëdd ci ay pajaas ay basang ak ah ainsi de suite yàlla wax leen nee bu fekkee yàlla ak yonent bi ngeen tànn nag ngeen tànn yàlla ak yonent bi te bàyyi yeneen bi dund gi ko yàlla tànn doo mu dund yaa ayyuhan nabi li ma tuharrimu maa ahalla llaahu laka tabtaghi mardaata azwaajik loolu kër yonent bi la xewee ji kër yonent bi la xewee yaa Aïcha doon fiir ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu reyee bu reyee gàtt xar wala béy wala nag wala gëléem jël ci yàpp ne jox leen mbokki Xadija yow Xadija nekk fi Fatima même yàpp sax boo ko boo ko boo ko rayee nga ne nañ jox mbokki xadija mbokki xadija buñ fi ñëwee nga ganale leen am loo leen gatandoo dañ ci baax ne ko xadija bi moo ma taxaw moo jël alalam jox ma waa Màkka di ma sonal mu défendre ma doom yi am yépp moo leen jur kenn da ci jurul mooy Ibrahim bi nga xam ne Maariya moo ko jur mais Zeynab mooy taawo yeneen ci Zeynab dan moo ko jur Xadija Roqiya kan moo ko jur Khadija Umu Kalsum Khadija Qasim Khadija Abdallah Khadija ki ci mujj mooy Fatima kan moo ko jur Khadija kenn la jur muy Ibrahim kon bu fekkoon ne am na kër buy mucc ci wàllu jafe-jafe say kër kër yonent bi alayhi salaatu salaam lay doon waaye ànd ak loolu yonent bi alayhi salaatu salaam dund ci mucc ci beneen bi mu réseaux sociaux dafay nekk di def. comparaison ci vie de couple lu benn waay wax mu comparé ko moom ak boroom këram xool ndax mu ngi ci moom mu ngi ci boroom këram su ko defee ci comparé boobu lay lay lay lay dund loolu mën a yëngal li nga xam ne mooy séem mën a indi li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe bokk na ci aussi mooy li muy indi mooy jigéen ñoo xam ne dañ cay nekk dem ba miinanteeg góoru jàmbur góor ñoo xam ne dañ cay nekk. dem ba miinanteeg jigéen boo xam ne jaambur la ci ñoom yebante lool di yónnante ay message ba léeg-léeg sa borom kër dal ci message bi léeg-léeg sa soxna dal fekk na lan moo leen ko nekk ci benn groupe miinante ba yebante bay waxante kàddu yoo xam ni war leen ko waxante loolu yëngal sa sa mariage yëngal sa sëy indi sa jafe-jafe léeg-léeg gis jigéen joo xam ne séqu leen ko séqu séqu leen ko mu jékki-jékki di la yónnee ay photos photo yi pour lan la lu tax mu lay ay photo photo yooyu mën a jékki-jékki sa soxna dal ci léeg-léeg gis jigéen joo xam ni góoru jaambur yónnee ko ay photo pour lan ko tey tey damaa demoon fii ci damaa demoon fii ci Auchan bi am lu doon jënd après day aajoo nga photo yónnee góor goo xam ni jigéen joo xam ni moom it day jékki-jékki yónnee ko ay photo ba moytu danaan ko man maay sa maay sa ami bi nga ajouté wala maay sa nangam pour boo ma gisee nga xàmmee ma te am amaan soxla woo ko gis boo ma gisee nga xàmmee ma loolu mooy wax la ubbi bunt boo xam ni buntu fitna la mais buntu bu mën a yëngal mariage beneen bi mooy day tax léeg-léeg góor bari ay xarit yu jigéen jigéen bëri ay xarit yu góor te xarit yu bëri xarit yu bëri ci jigéen xarit yu góor yu bëri ci jigéen mën naa yëngal sëy xarit yu bari ci góor gu nekk ci sëy mën naa yëngal sëy mën naa yëngal sëy da ngay gis góor goo xam ne am na ay numéro yoo xam ne bu ñu koy woo biir këram du leen décroché du leen wala day wut yeneen lay eh ci liggéey boori man wàcc naa de wàcc naa wàcc naa de fekk na <laughs> yàlla xam yàlla xam daal. am na góor goo xam ne yenn téléphone yi su koy wuy ci kanamu ci biir këram day déplacé wu léeg mën ngaa wuy yenn yi déplacé wu kenn terewul lu tax mooy secret la boo xam ni du ko nekk ko war a xam nekk ci bunt boobu de nekk ci bunt boobu am na jigéen joo xam ni su borom këram nekkee biir këram am na numéro yu koy woo du leen décroché boo ko doon wax waaye yow ki lay woo bu appel yaa ngi bëri décroché ah kii daa am lu muy laajte wala diw moom a booleeg moom. jeex na ci des fois ci reetaan mooy xam nga nit lu ko bett da koy mën am na koo xam ni téléphone bi bu sonee rek ci xool téléphone bi ak attitude dem comportement bi ci ngay xam ne kii stable ça ne va pas problème am na parce nit lu ko bett da koy mën bu dee jigéen ñi da koy xam bu dee ko góor ki da koy xam appel bii heure bi nga ko woo nii ak moment bi nga ko woo ak fi nga ko wooyee déranger na ko da nga koy gis ci kanam. loolu jarab moytu la li ñu am na problème bi ñu am muy jeunes yi jeunes yi rawatina jeunes yi di door a dugg ci sunu nekk ay jeunes rawatina génération deux mille bi génération wifi génération connexion génération bii dañoo ñeme ñemante góor ñu jigéen ñi dañoo ñemente trop ba jéggi day ñeme fës ñeme exhibé wu ñeme filmé wu ñeme wonewu ñeme fotow da ngay sax posé wu question lu xew lan la ni ñu ñemee réseaux sociaux yi dafa jéggi dayoo jeunes yi ñoo gën a ñemee mag kanam boo xam ne doo xam lan la léegi loolu boo comportement bu boo ko jëlee boo yóbbaale ko ci sëy rek sa sëy day am problème lu tax mooy da ngaa bëri xame bëri xarit bëri ñooy vocal bëri message bëri appel te ay góori xarit ak jigéeni xarit boo duggee ci mariage da ko yëngal parce que laata ngay dugg sa mariage rek lewoo xarit yu góor yu bëri bu dee ku góor ci xarit yu jigéen yu bëri boo duggee ci ci am na ñoo xam ne bu ñu duggee mariage dañuy changer numéro changer numéro téléphone ñeen ñi seen borom kër day récupérer seen puce wutal leen puce bu bees ndax tellement bëri dugg bari génn bëri corox corox noonu nag nit ki da koy préparer xame mënta ñàkk mais xarit xarit day am limite day am fu mu yem mais xame yu bëri daf lay yàqal lu bëree bëree bëri rawatina xame yoo xam ne xarit yoo xam ne diine boole wuleen sunna boole wuleen aduna caaxaan xame bokkoon classe bokkoon école moo leen boole ci su ngeen di wax yëpp ci mbiru aduna diine amu ci cër ñooñu relation bi loo ko wàññi moo ëpp jàmm ci yow loo ko restreindre moo ëpp jàmm ci yow lu tax affaire aduna rek ngeen di wax te affaire aduna bi mën na laa indil ay yàqu-yàqu yu bëree bëri na laa indil ay yàqu yu bëree bëri loolu moo tax euh, réseaux sociaux yi day yëngal yëngal na mariage yu bëri. yàq na yu bëri indi na divorce yu bëri indi na jafe-jafe yu bari tax na ay jigéen fay dem toog seen kër tax na ay borom kër soxna suñ téye bàyyiwuñ ko waaye tax na ñu wuti keneen indiwaat ci kër gi ndax comportement am ak nangam da ngay dégg ku naan damay tëdd maag sama soxna tëdd tëdd ci guddi gi moom mu nekk ci téléphone am nga dégg ku naan dañuy tëdd ci guddi gi sama borom kër mu nekk ci moom. mi téléphone bi dañu ba une heure du matin deux heures du matin boo ne ko mu ne gëmmantuwuma nooy gëmmantoo li meilleur baa ngi tëj sa bët nooy gëmmantoo doo ko dagul doo gëmmantu li loolu kon jafe-jafe la nga gis koo xam danaan la sama soxna dafa chronique ci TikTok bi ki naan sama borom kër dafa chronique ci TikTok waaw am nga douze heures de temps ci journée bi vingt quatre heures douze heures bëccëg douze heures guddi xanaa mën nga planifier li ngay déglu nga déglu ko li ngay wax nga wax ko lu dul loo xam ne urgence la dafa dafa sa liggéey moo ko laaj sa moo ko laaj sa côté professionnel moo ko laaj sa responsabilité moo laaj lu dul loolu nga bàyyi mu dem ndax lan ngir protéger sa sa vie de couple protéger sa bopp stabilité ci sëy dafa am solo sëy bu amul stabilité wallahi da ngay julli doo concentré wu da ngay liggéey doo concentré wu da ngay liggéey doo concentré wu parce que ñàkk jàmm ci kër baaxul ñu wax ne waa ji dafa xuloo ak soxnaam xuloo bu métti guddi ñu fanaana xuloo ba fajar te saa bu xëyee moo yóbbu xale yi école moom mu xëy yóbbu xale yi bureau moom mu dem école mu xëy yóbbu xale yi bureau moom mu dem école daanaka mbéy ko ba dugg ci école bi doo xam ne moom école la ñëw xale yi xale yi ñoo dem bureau nan moo ko yóbbee loolu. mooy ñàkk stable ci biir mariage couple ñàkk stabilité léegi koo xam ne bu wàccee balaa muy dugg këram bu sañoon bu sañoon ki mu wàcceel àndal xaritam bi mu àndal waaw duñ jaar seen kër ba ci kanam waaw ah, pourtant mën nañ fa jaar teg ataay ba ci kanam quoi man kër ga moom defuma fa dara dafa fa am na lu xew dina jaar fu nekk ba nga xam ne heure bi muy day ñëw tëdd day ñëw engagé coow tuuti rek tëdd bu xëyee xëyat lu tax mooy teel a àgg ci kër gi arrangé wu ko mu jaar fii noppalu nelaw fii ci fauteuil bi nelaw fii ci basan bi nelaw fii ci chaise bi dal fi tuuti bu àggee lu mu am baax parce que tranquillité boobu mu ko am këram nga gis koo xam ni soxna soo xam ni heure wàcc borom këram su waree wàcc lu am jàmm moom dina def lépp gaaw pare nga xaar parce que su borom këram xasee ba wàcc hostilité yi commencé na Iran Irak Iran Irak la ba fajar ba borom kër gi di xeex wala sax léegi dañ naan Russie Ukraine la ba fajar ci la ñuy nekk ba fajar loolu jafe-jafe la moo tax nit ki lu mu mën a def pour dalal biir këram mu daal digganteem ak njabootam dafa am solo rawatina bu fekkee am nay doom doom yi commencé magal xale yi danoo garaw léegi xale yi xale yi internet lañ xale yi wifi lañ bu njëkk yow am quinze ans douze ans dix ans li xale bu am dix ans war a xam ngay xam xale yi dañuy am dix ans xam lu ko xam dix huit ans war a xam nañ ko ñoom donc jàpp seen jaamur di la xool yaa noo xale la na xel mi lim xam yow yow am na loolu xam na xamoo ko yow am na foo xam ne bu ngeen ko duggee mu jaay la la lim ci xam xamoo ko ci yow xale la ni ci jëm waaye xel mi gis na ko foo xam ni àgg na foo xam ni li waa dix huit am xam xam na ko li waa vingt ans xam xam na ko xelam na foofu nga jàpp ne xale la jàpp ne ku ignorant la ku koo ku xamul dara loolu mat a bàyyi xel moo tax léeg-léeg couple bu xale yi commencé màgg dafa am yoo xam ne da ngay am esprit de dépassement da koy dépassé da yoo xam ne da nga koy jombale sa bopp da am tolérance ci lu bëree bëri daa am yoo xam ni da ngay jëlale du lépp détail bu ne nga taxaw ci moto ki nga nekkal motul. da ngeen di jéem a mottalante jigéen ki matul ku góor ki matul sëy maanaam wàllu complémentarité ci mottalante la góor ki matul ku jigéen ki matul ku jigéen ki dafa soxla dal ci ku góor ki dafa soxla dal ci ku jigéen ki li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma li taskunu ilayha mooy nit ki bu nekkee biir kër daa war a moo tax bu dalul ci biir kër gi bu génnee ci mbedd bi ku ko xool xam ne dalul dañ ko jox fooy mu sañe ko mu war a sañe da lay nga sant jóob mu xam la ba dix ans Diop la lay wax mu ne la Seck wala mu ne la Ndiaye ñàkk stable gi ci kër ga la boo ko defaroon café léegi léegi jox ko dem di wuti suukar bala ngaa ñëw mu naan ko boo ñëwee nga ne café bi amul suukar mu ne lu ma ci xam stable des fois day xëy fu mu doon jàddee pour dem place am liggéey mu ko day dem ba deux cent mètres door a yëg ne man fii man fii laa waroon a jàddee nekkul nelawul guddi gi ñàkk jàmm ca kër ga stable ku jigéen bu daan togg lu neex du ko togg ci du concentré wu mi ngi xalaat coow li borom këram jàppante bi nangam ak nangam moo tax jàmmi biir néegu sëy wallahi loo mën pour def ko def jàmm la pour yow jàmm la pour soxna si mais jàmm la pour xale yi beneen ay xale buñ màggee ci climat wu xeex saagante dóor kur feñ wéq périer ah eh, mbëkk xale yooyu dañuy violent dañuy violent beneen bi parent yi duñ leen tal yar bi ngeen war a yar duñ koy ndax kër gi amul jàmm xale yi dañuy manqué affection parentale loolu dafay joué ci seen intelligence dafay joué seen jàng gis nga sëy bu amee stabilité xale yi seen jàng day feeñ mais bu xuloo amee xale yi xaaral seen résiltat compo seen résultat examen xaar ko da ciy répercuté wu da ciy def effet ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dama tax loo mën pour sauvegarder ko nga mën pour defar ba affaire bi am stabilité sa kéem kàttan góorgóorlu ci beneen bi aussi mooy waxtaan jigéen bu mu dëgër bopp ci kanamu borom këram fii ak li mu koy wax njëriñam la borom kër dañ koy taa ni ñuy taawee kilifa kilifa réew ministre chef de quartier maire ah borom kër képp koo xam ne yàlla dénku na ko dara ci njiit pour mbir yi mën a dox non ñu am jàmm foog ñu ànd ak moom lu baax li muy teg ñu ànd ceeg moom mbir yi mën a dox bu dul loolu affaire day jaxasoo moo tax charia daal di sant ku ñu jiital ñu ànd ak moom jàppale ko ci lépp lu muy def su dee lu baax la maaruf la bu dee lu bon kenn du ci ko topp te lool parce que topp yàlla moo féete ko topp ko moom loolu moo tax jigéen topp gi muy topp borom këram jaam mi biir néegu sëy bi la jàmmam la moom jaam borom këram la jaam mi xale yi la barke séyam la barke séyam la barke njaboot ci loolu nag il mu liggéey bu yebee sa borom kër njaboot ji pour ñu barkeel dana jafe seen yar pour mu baax dana jafe seen moroom yi pour ñu raw leen day yomb pour ñu def résultat école dana jafe waaye pour nga am doom yi gën ci koñ bi njaboot yi gën ci koñ bi njaboot yi gën ci famille bi njaboot yi gën ci askan bi day jafe lu tax mooy liggéeyoo ko ci biir kër ci wone woo ko jikkoo woo ko dundoo ko sa comportement génneewu lan ngay am mooy xale yoo xam ni ku leen gis xam ni seen papa am na lu mu def ci ñoom seen yaay am na def ci ñoom ci ñàkk yar ci ñàkk leen a ñàkk leen a jox yitte waaye euh, ni ñu waroon a occupé woo ci ñoom ak constant ci seen yar taluñu ko parce que ñoom ñaar seen seen bopp lan tal seeni ñu waroon def ci ñoom cinquante pour cent ñoom cent cinquante pour cent lañ def ci ñoom ci seen diggante ñoom ñaar ba waroon def ci xale yi defuñu ko ci ñoom parce que taluñu leen loolu ci jafe-jafe la parce que xale bi di rek yóbbu ko école muy jàng du rek inscrire ko mais comportement bi ngay nekkee koy wan dal ne ci kër gi respect bi la sa jabar di jox respect bi ngay jox sa jabar day joué ci éducation xale bi ci yaayam parce que comportement biir sëy bee tax gis xale bu yàpp papaam parce que comportement bi gis ci biir sëy bee tax gis xale bu dëgër bopp ci ci biir kër gi parce que yaayam daa dëgër bopp ci kanamu papa loolu day feeñ moo tax dañu war a góorgóorlu réseaux sociaux yi ñun ñoo ko war a dominer waruñoo dominer ñoo ko war a maîtriser mais waruñoo monopoliser loolu nag dafa laaj organisation xam danger fi nekk. xam nañ bëgg lépp loo gis dafay am limite lépp loo gis dañ koy organiser lépp dañ koy programme dañuy wax ne africain lu mu dugg day ëpp dafa ne tubaab buy naan sàngara day jël bu ndaw sotti naan jox moromam mu naan bëgg day ñëw naan bi day wax ne tubaab yi tax mu créé indi ay fecc ak musique ak nangam bu liggéeyee ba sonn bëgg distraire bëgg dégager pression bi ne ci boppam mu def tuuti fecc wëndeelu déconné après dem toog léegi africain bi day fecc vendredi fecc samedi fecc dimanche lundi mu def soirée mardi mu def xumbul euh, mercredi mu mu mu def fuural euh, jeudi mu def leneen foo jëm ak lu ne bis bu nekk fecc fecc way fecc te fecc ñoom daa am lu taxoon ñoom ñu tere ko ñu fecc toujours maa ngi nit ki dogaloon def pour fàtte ay problème ak dal après reprendre ak ñun da ngay da jóge sa kër dem trois kilomètres mandi après jaaraat ci mbedd bi trois kilomètres yëpp koo romb daggal ko ndey daggal ko bàyyi africain lu mu ëpp ñu ñu internet ñu réseaux sociaux pour jàng pour pour pour pour leneen ñun tey ñu yàq ci suñuy vie yàq ci suñuy vie tas ci sëy yàq ci éducation xale yi tasaara ci way tasaara ci fecc tasaara ci mbonte ah encouragé ci nit ñi nekk ci ba mu juróom ñu lu bëree bëree bëri bëri tey am na réew yoo xam ne boo fa demee seen économie réseaux sociaux yi moo ko yor internet yi ñu bëri ci ñoom télétravail la lañuy def mooy xëyatoo liggéey sa ordinateur ngay toog di liggéey à distance dematoo ministère dematoo service ba dematoo entreprise ba lépp sur réseaux sociaux lañ koy rek économie bi dox circulation bu bëri embouteillage bu bëri amatul seen dëkk parce que tuuti ñëwee xëy ñëpp ñu ngi ñun moment boobu da ngay dem ci service nit war laa signal kayit muy seetaan téléfilm muy seetaan téléfilm benn waaye bu fenn maay jabaru jàmbur day fenn du jabaram benn waaye buy fenn maay jëkkër jàmbur day fenn du jëkkëram mais fenn nañ ba nangu ko ba gëm loola fenn bi nga gëm ne jabaram la jëkkëram la ñiy fen nga gëm seen fenn di leen seetaan ci fenn nga gis kuy jooy jooy fen nga ànd ak moom di jooy dëggantaan te day jooy dañ naan heure bu jotee da ngay jooy muy jooy yow ngay jooy te day fen di gis koo xam ne day fen di reetaan reetaan bi muy reetaan dëgg dañ ne heure bu jotee nga xam ne yow dañ lay fooye dañ lay télécommande gis ko xam dañ naan heure bu jotee dóoral waa ji mu dóor ko am nañ ko sotti ñu ne rey ko dee na ko ngeen xam ne ko di ko kii moo iñaan kii moo soxor kii imbécile la kii moo bon ngeen baal ma ci kàddu kii mooy saay-saay kii lépp yow li ngay wax ni ay fen la dara du ci dëgg mais yow yaa ngi ci beneen monde gëmloo nañu ne dëgg la gëm nga ne dëgg la yëgoo ne lii yëpp ay fen la boo ko yëgee fàtte nga nga réseaux sociaux yi yu garaaw a ci am te nit ñi dañuy fàtte côté diine bi sax lañ ci jàngal instant théâtre boo xam ne dañoo woote ci biir théâtre bi ne diw dañ koy may diw bu nekk jabaram am ku ñëw di ñaan am kuy maye mu am kilifa yi am seede te xam ngeen ne sëy ci théâtre buñ ko takkee dëggantaan la ci sariya sëy kenn du ko fooy loo xam ngeen loolu salaasatun jidduhunna jiddun wa xasluhunna xaslun bokk na ci an nikaahu wa talaq sëy kenn du ko fooy bu ñu la mayee may nañ la wér bi ñi la war a may bu ñu la mayee may nañ la wér bi comme ni ko Cheikhul jël koo xam ne jëkkër ak jabar la nekk couple dëggantaan ñu ne leen yéen ñaar yéen a joué théâtre ci biir théâtre mu ko passé naa kooku buñ paree ñàkk na jabar noonu ci théâtre la ko fase ci réalité ci charia tàbbi na yéen gis mbir yi mu nekk lu kon Euh, ci bi ñuy dund muy wàllu fiction bi wàllu euh, internet bi ak wàllu réseaux sociaux yi nañ ko amal limite xam ne li muy yàq bëri na te li mu yàq li ñuy yàqal daanaka moo ëpp ñu li mu ñu te contraire bi la waroon a doon toog jàng ay dars moo jaadu woon sa diine yokk ci moo jàng moo jaadu woon nga jàng ci alxuraan sa bu alxuraan yokk jàng ci hadis jàng ci askar jàng ci ñooy réparé julli ñoo defaree julli ñoo jaamoo yàlla ñoo wéralee sa pas-pas ñoo defaree say jikko loolu moo ca jaatu woon mais boo demee ba kuuru nit ci ba déglootoo sa borom kër déglootoo sa yaay déglootoo sa papa déglootoo say sër ay jàmbur yoo xam ni xamoo ku ñu nekk xamoo ku ñu nekkul ay ñuy bind la xamoo tax ñuy bind ndax ay góor lañ wala ay jigéen ñoom ngay jël seen xalaat di ko appliqué te ñu ci ëpp ñi nekk ay féministe wala sax ay féministe ah ñii nekk ñoo xam ni amuñu jëkkër ñii nekk ñoo xam ne yeneen xalaat yi lañ am yeneen doctrine moo nekk seen bopp nga di dégg ñu lay la xalaatal di la wax loo xam ne dafa dafa safaanoog diine loolu mën laa yàqal lu bëri ngay jël seen i xalaat ñëw di ko wàccee sa biir sëy def ko réalité ba ko faa forcé mu yàqal sëy bëri waa ñoo xam ne tey seen sëy réseau sëy moo tax ñu ñàkk ko dem ba ci biir rëcc ba ko delluwaat ginnaaw te wees bëriwaa na góor ñoo xam ne réseau yi tax na ñu ñàkk seen jabar dem ba ci biir rëccu bëgg delluwaat ginnaaw te mënatul nekk parce que réseau yi yàq na ko ba pare bëriwaa na koo xam ne xar bi am ci réseau sociaux bi moo koy xalaatal te borom këram xamul kii lan moo tax mu changé ko koy xalaatal ci réseau la nekk lan moo tax mu dëgër bopp ka ko dëgër la bopp ci réseau bi la nekk lan moo tax lu ma wax mu tontu ka koy jox xalaatu del tontu sa borom kër te lii koy tontu ci réseau sociaux yi la bëriwaa na borom kër bu jékki-jékki violent soxnaam changé comportement changé ji soxor tàng jir te dafa ko changé ci réseaux moom comportement ci biir këram ci biir sëyam digganteem ak soxnaam changé ba soxnaam xàmmeetu ko ba mu moytuwul sax ñaan baat lay wala loolu rek la bëgg sociaux yi ñoo ko changé mbokk yi réseaux sociaux yi du fu ñuy jëlee conseil yu sëy di fu ñuy jëlee naka la ñuy organiser suñu sëy du moo lay jàngal noo yore si soxna du moo lay jàngal tey da ngaa war a mer nga mer tey da war a kontaan nga kontaan tey da nekk ci diggante bi nga nekk ci diggante bi tey da ngaa war a tàng nga tàng tey da war a sedd nga sedd du foofu nga koy jëlee du foofu soo ko fay jëlee lu bëri ci sa sëy ah dana am dana manqué stabilité dana bëri ay trouble dana yàq li nga xam ne moom mooy lu bëree bëri kon lii tam bu yaatu la boo benn woon waxtaanee benn fan ñu waxtaanee ñaari fan wala wala ñetti fan wala semaine da ngay def rek saa boo toogee jotaay am loo ci jukki sànni benn jotaay am la jukki sànni keneen bu ñëwee jël sànni keneen bu ñëwee jël ci sànni yàlla ñu yàlla defal tawfiq yàlla sàmm sàmmal ñu njaboot gi sàmmal ñu suñu diin wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ragal naa fi ku fi am sa téléphone jabar booy mën a xool booy xool sa téléphone dañ leen di wàññi rek parce que ku nekk da ngaa ko sa téléphone jàpp sa jàmm boo motul deux mois yi nekk nga beesalaat mot de passe am na ci ñoo xam ne seen seen code téléphone sax moom du moo de passe maanaam ñoom baaraam la baaraam ngay def wala sa kanam sa face yow loo def def def moom bu ñëwul kanamam bu ñëwul du ko jël kooku mën nga woote ji mënoo ko di moo tax téléphone li ci cosaan mooy du privé la mais jëkkër ak jabar waruñoo am nëbboo lu loo xam ne lu mënta ñàkk la parce que ku na ay secret jàmbur yoo xam ne bëggul soxnaam di ko xam jigéen ki am na ay secret jàmbur yoo xam ne bëggul borom këram di xam mais dox seen diggante wàllu sëy ak ñu am ak relation yi loolu ñoom ñaar waruñu am luñ ciy ragal bi ci tiit ba mu war a indi problème bi foofu la bu ñu ko ne kenn ku nekk bu xamee loolu xam ne limite bi foofu la su ko defee loolu dafay nekk loo xam ni dafay jaar lu tax mooy lekk léeg jaar na amaana ku góor ki am loo xam ne téléphone Euh, bëggul soxnaam di ko xam parce que léeg-léeg bu fi soxnaam amee accès téléphone am xam compte weefam orange mu ne fa nekk du am jàmm moom moom daa bëgg fu mu toll nan ko indil joxeel indil defal te waa ji na ko man tey sama poche te wax na dëgg sama poche benn cinq mille la fi nekk poche bi cinq mille la fi nekk mais fii moom amaana trente mille wala mais poche bi cinquante mille la fi nekk wala cinq mille la fi nekk boo amoon accès ubbi fii ne ko yow cinq mille nga waxoon moo nekk sa poche dafa ne poche bi la ko wax de parce que fii di waaye fii boobu beneen poche la bu fekkee trente mille day jàpp ne daa am loo ma doon nëbb coow danaan pour coow danaan pour loolu moo tax léeg-léeg ko neexee téléphone am ci loo xam ne moom am na ci droit du ko am ci accès rawatina bu fekkee am lu ëpp bu fekkee dafa am lu ëpp li nga xam ne mooy benn soxla wallahu taala alam wa rabbi ilayhi aslam macha allah dina ñaanal ñaar macha allah maanaam bu ñuy seetaan yenn saa yi yaatal yenn saa yi nga gis boo xam ne dëgg la jabar bi vraiment mais ñun pour la seen sëy suñu ñaatal kon waa tàmbali na saa mais benn bi nga ci gën a leer mooy bi nga xamante ne comme ñu ko bëri doomee moom naa ni nga ah di wali yéen. waaw léegi nag foofu. ndax ñu ko ndax ñëpp ñooy commencé pour naan ñoo dañoo nekk ci théâtre nekk jëkkër ak jabar ñu tas sëy bi ci théâtre bi dañ doon théâtre ñoom dañ doon théâtre mais charia moom théâtre bu théâtre mais charia théâtre sa jabar boo ko nee fase naa la fase nga ko théâtre la du théâtre fase nga ko fenn rek nga naan ko fase naa la du fase bi du wér moo dañ laa forcé wala nga am problème mu xel wala ngeen nelaw di gént ci gént yi nga ne ko fase naa la parce que da ngeen xuloo woon nga jàpp xuloo gént nga ne bi du tàbbi mais yaa ngi sa sago yeewu nelawoo da ngay théâtre da kaf damay fo damay essayer damay seetlu charia xamul yooyu parce que kenn du ko kefe ci sharia wax naa la ko salaasatun euh, jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun ñett yi soo ko kafee dëgg soo ko fooyee dëgg la ak fase ci la ak gëm ak weddi euh, ñu ne kenn du ko maye du kilifa yi ñoo koy maye ak jigéen ji wala ku góor gi bu ñëwee wax ay kilifaam euh, ne leen man damaa war a jouer waaye ci biir théâtre bi dañ maa war a maye ba su ngeen ko gisee ngeen xam ne dañ may maye rek théâtre la kilifa yi ne ko waaw d' accord nañ ñu maye la ci théâtre d' accord nañ d' accord salaam kilifa yi du accord nañ joxe nañ seen accord ñoo joxe seen accord kan moo lay maye ci théâtre bi ñu ne ko diw moo ñuy maye ñu ne ko amul problème mën na laa maye ñu su ko gisee dañu xam ne théâtre rek la ah, joxe nañ seen kilifteef bi joxe nañ d' accord nañ yaa war a maye suñ doom théâtre bi mu ne waaw mën waaw ah, ah danga ko may rek mais nga xam ne théâtre la moom am na borom kër ah d'accord wala moom amagul borom kër de ah d'accord théâtre rek ngeen dem ñu may ko ci théâtre ba charette moom nee nañ seen kàddu maye nañ ko am nay seede cat sëy am na cat loolu kenn du ko fooyee ci kenn du ko théâtre ma mel ni ku woor ku woor dëggantaan. di théâtre ñu ne ko da ngay dog mais théâtre la après nga continuer sa bopp léegi ñu ne noonu moom dafa dog rek ñii ci théâtre quoi dafa doon théâtre ci théâtre bi la dog charia na ko ci théâtre bi la dog ah julli kenn du ko fooyee ngay kàbbatu julli après da koy dog déedéet kenn du ko caaxaan am yoo xam ne kenn du ko laa ci charia kenn du ko fooyee kenn di ko théâtre loolu ñu bàyyi ci xel wallahu taala alam wa rabbi ilayhi membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën jëm ci kanam